بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي صالحين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكي جلدي bu ñu jiitalee nuyoo lislaam boobu jëme ko ci yéen ñu ngi leen di ndokkeel ci weer wi nu bokk muy weeru jullit woo xam ni dafa am yum jagoo waaye ba ca gën a siiw di yónni ki gën ci yonent yi te mujj ci yonent yi te tëj yonent bi ki nga xam ne ak yónneem rek alaamatu saa la màndargam àdduna bu jeex mu wax ko ci xadis mu buistu ana wa saa ka haatayni ñu ngi ñaan borom bi dolli ci moom ay xéewal ak jàmm ñaareelu ngëneel li ñëw ci weer wi di wàccu alxuraan foofu laa yem ndax su ma limee li ci nekk ci ngëneel day mel ni damay conférence te suñ rakk ji ci suñ càmmooñ Saïd li moo war a defal ñun moo waral ñoo moo ñu war a defal benn waxtaan boo xam ne mi ngi tudd alaamaatu axiri zaman màndargam mujjug jamono mu mel ni lu tumuranke fekk lu jaadu la ñu war koo xam ndax loo xam ne jibril laajoon na ko yonent bi alayhi salaatu wasalaam cëg dundam ca madinatul munawara loola du lu bees xanaa kay dañ koo sàggane ba mu nar ñoo réer kon jasallahu xayran ñi tànn waxtaan wi ngir lii nga xam ne sunu alal la naroon ñoo réer nu man caa delloosi nafaraat ko xam lu ci sunu warugar ndax ni ko boroom xam-xam yi di waxee al hikmatu daalatul mu'min ayuma wajadaha axadaha mu ne xikma xikma boofu nag jubluwuñu ci rek ak muus waaye luy jëriñ ab jullit ci àtte bi yàlla ko yonentam dafa réer ab jullit fu ko jullit fekk rek war na koo jël kon duma guddal ñu ngi waxoon dañoo bëgg a tàmbali 10 heures ñu ngi ci 11 heures 35 ñi ngi yëgal waa dëkk bi ne képp ko waxtaan wi teel ñi ngi tàmbali li ma faral daan wax nag dinaa ko wax ngir dëgëral sama bopp dëgëral sama mbokki jullit yonent bi yàlla bi alayhi salaatu wassalaam bi ko yàlla yónnee mu tàmbale woote gi amul lu mat juróomi nit mbaa moo leen juróomeel soxna Xadija la fekk ci néeg ba Zayd ibn Haarisata Ali ibn Abi Taalib muy ñett kon moom sax matuñu juróom ñeent waaye mu tàmbale di woote nag ba lu ko ci fekk fekk ko ci kon képp kuy woote itam nag war ngay sàmm fexe ba joxe lu baax rek ku la dégg ku la déggut sa yoon na ci bancaane buñ demee ci xadiisu Xuseyn Imraan ibnu Xuseyn adet Xuseyn ibnu Abdurahman Asulami xadiis bu gudd boobu ñëw ci sunan saxiihu muslim ak yeneeni sunan la ma ci yitteel rek mooy bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam di wax ne yowmal qiyaam bi ko ko yàlla wonee gis na ca yonent bu yàlla yónni ba ak yonentam jeex kenn topp ko yonent bu yàlla yónni mu ñëw di wax ak nit ñi yàllaa ma yónni yàllaa ma yónni ak mujisa ya ko yàlla dëgëree ba ak yonentam jeex kenn gëmu ko loolu damay faral di ko fàttali sama bopp di ko fàttali mbokk ci daawa yi ak ñiy organiser lu jëm ci daawa su ko defee loo loo am lu mu tuut tuut bul ko xeeb yàlla nattuwuñu ci lu bari ci lu baax la ñu nattu li yabluwakum ayukum ahsanu amala waxaat fa ne ne qul laa yastawi alxabiis wa tayib walaw ajabaka kasratu alxabiis bul jéem a lëngalee ñu ba lu bareeg lu tuuti yow lu lu baax na la yitteel ndax lu bar lu bari li lu mu bon bon amul soxla amul soxla amul solo ci yàlla kon nag foofu laay taxawlu ñaan mbokk mi borom bi defal ko tawfiq defal ko dëgër waxi borom bi subhanahu wa taala ak waxi yonentam ndax ñu mën cee jariñu bu nu fàtte ne nanu beesal sunu yéene jotaay bi kat jotaay la boo xam ne borom banko boole ca malawul aala di ñu tudd ndax moo ko garanti ci hadis boo xam ne yonentu bi alayhi salatu salaam moo ko wax amul benn bërëb bu aw nit daje di waxtaan ñu bari dañuy jàng hadis bi nga xam ne dañ koo xaydi ci masjid waaye hadis bii may wax ci suñ saxiixay ni la ne abubakar sadiq soloo ko mu ne yàlla dafa am malaayika yoo xam ne seen liggéey mooy dox di wër fépp fu ñu gis groupe boo xam ne ña ngay toog di waxtaane seen diine ñu dem wax ko yàlla ba hadis ba jeex da cay bokk yàlla jéggal leen jéggal ña fa teewoon te yàq ñu mboq mba waxtaan wa kon nag nanu beesalaat si nii ne te xam ne ñu ngi ci jotaayu ngëneel jotaayu am tuyaaba jotaayu bi yàlla subhanahu wa taala dinu tudd fa malaul aala yal na borom bi defal nu tawfiq defal leen ko hasa wa billahi tawfiq wa salatu wa salaam ala rasulihi wa alihi wa sahbi ajmain faddal ya cheikh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظم سلطانك ومجدك ردينا بك ربا وكفرنا بكل ما يعبدون من دونك آمنا بالإسلام دينا ودولة وآمنا بالقرآن دستورا ومنهجا آمنا به منهجا للفرد ومنهجا للأسرة ومنهجا للمجتمع ومنهجا للدولة وكفرنا بكل ما عدا الإسلام من نزم وتشريعات وفلسفات لأن الدين عند الله الإسلام آمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم آمنا به قائدا ومرشدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal suñu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk yi ñu ngi leen di ziyaara ci weer wu màgg wi nu nekk ñu ngi ñaan buur yàlla tabaraka wa taala lépp luñ ci jaamu yàlla mu néew mu bari yal nañ ko yàlla nangul lépp lu nu tarxiis yal na nu yàlla jéggal comme ni ko cheikh bi waxee léegi tomb bi nga xam ne moom lañ fas yéene fàttalante ak mbokk yi muy màndargay bés pénc alaamaat axiru zaman waxtaane tomb boobu nag ci waxtu yi nu toll lu nu waroon baril la te suñ koy waxtaane waruñ cee yokkat yambagi an laa na malla tarxaha wala nataab takraaraha dañ koy war a baamtu du bëri di ko fàttali mbokk yi lu tax ndax ñu xam fu nuy teg sunu tànk ndax ki yàlla yónni woon te ñun daf ñu jox ay màndarga yoo xam ni lim ñu war a jural mooy ñuy waaj di bàyyi xel sunu bopp pour dajeeg borom bi tabaraka wa taala dëkk boo jëm boo jegee buntu dëkk ba da ngay gis ñu def ay tableau di la wax yenn saa yi egsi nga ci dëkku sàngam wala ñaata kilomètre moo ci des wala ñaata mètre moo ci des dëkk boo romb nga gis ñu def tableau ci buntu dëkk bi bind ci turu dëkk bi ñun dañoo jëm benn dëkk bu tudd àllaaxira war a bàyyi ko àdduna di tukki jëm dëkk bu tudd àllaaxira kon day laaj comme dañuy tukki fa ñu jëm xamuñu ko sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci voyage boobu mu gunge nu ci waaye leeralal ñu lan moo ñuy fekk ci voyage bi tukki bi luñ ciy fekk lan la ñuy fekk ci yoon bi ba ba ñu yegg bal sax wax nañu dëkk ba luñ fay fekk loolu lépp pour lan pour ñu war a bàyyi xel sunu bopp mbokk yi waxtaane bis bañ ci jamono tey bi lu jaadu la rawatina nag màndarga yi nga xam ne mooy wane ne bis bañ ci jege si na alquran mu ngi nettali ñu ngi laaj yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam bis bañ ci kañ la yàlla tabaraka wa taala xamal ko ci quran ne bés penc ne mi ngi ñëw waaye akaadu uxfiiha li tujzee kullu nafsin bi ma tasaa man yàlla nëbb naa ko li tax ma nëbb ko pour bakkan bu ci mën a nekk nga préparé ko moo tax yàlla nëbb ko suñu bàyyi woon doomu aadama yi bañ ne suba la bis penc di nga gis ku nekk ci lu ko neex ba fajar gi jot mu sang janaaba jàpp utali jàkka ja gàddu kaamilam bokkaale waaye comme yàlla du ko nëbb day bette waxtu wu nekk mun na cee ñëw loolu lu muy teg voyage bu lay bett lu lay bett préparel toog di ko xaar moo tax yàlla nëbb ko waaye gis nga aaya bi lan la wax yàlla yonent bi tabaraka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko falaa yasuddunaka anha man laa yuminu biha wattaba hawaahu fa tarda am na ci nit ñi ñoo xam ne gëmuñu bis bañ ci ñooñu nag yow jullit yow muhammad ñooñu bu ñu la nax bu ñu la baare ñi ko gëmul lan moo leen ko teree gëm yàlla mu ne wattaba hawaahu seeni bànneexi bakkan kese moo leen teree gëm yàlla moo leen teree gëm bis bañ ci moo leen teree waaj moo leen tere jaamu yàlla seen bànneexi bakkan kon yow jullit bi yow mi gëm yàlla tabaraka wa taala di roy yonent yàlla muhammad ngal la waay bu mu la baare ku gëmul alaxira topp ay bànneexi bakkanam ñëw na ci beneen aaya yéeféer yi di wax naan alaxira de du ñëw wa qaala alladina kafaru laa taatiina saa yàlla tabaraka wa taala ne muhammad qul bala wa rabbi la taatiyannakum alimul xayib bés penc de du ñëw yàlla mu ne muhammad waxal ah kay dëgg la de bés penc ngi nii di ñëw jege lool ndax ki koy indi ci yéen di ko taxawal mooy alimul xayib mooy ki xam kumpa ki koy indi mooy boroom mi bind lépp xam lépp kooko koy taxawal kenn mënut a fexe ba du ñëw waaye mbokk yi laa yaalamu mawidu qiyaami saa illa allah bés bañ ci kañ la kenn xamu ko ku dul yàlla gis nga tey àddina bi yàqu na yàqu boo xam ne da ngay xëy rek yenn saa yi dégg ñu ne am na ñu tudd xoy ñu commencé di wax ci rajo yi naan nangam dina xew dina am luy am nga dégg ay mal uuni la yoo xam ne ñoom dañuy gëm loolu mu jaaral leen a werante ñi yàlla rëbb nga xam ne gëmuñu alquran gëmuñu sunna ay xërëm lañ gëm ñu ñu commencé di gëm loolu képp ku dégg ñu wax dara ci rajo ci mbirum xayb ba nga gëm ko weddi nga li yàlla wàcce muhammad man ata arrafan aw kahinan fa saddaqahu bima yaqul lan la yonent bi wax faqad kafara bima unzila ala muhammad ku weddi li yàlla wàcce muhammad foo jëm yéeféer nga kon yowmal qiyaam ci mbir yooyu la bokk kenn xamul kañ la ku dul yàlla ndax dafa bokk ci mbiru xayib wa ilmu qiyaami saa min al umur allati istaasara allahu biha yàlla rek moo ko jagoo yàlla moo ko jagoo xamu waxal ko kenn xamalu ko kenn sëpp ci kenn pour mu yër ko pour xam yowmal qiyaam kañ la la malakun muqarrab wala nabiyun mursal du malaaka bu ko jege comme jibril ak mikail wala yonent bu mu yónni amul kenn kon su fekkente ne malaaka yi jege yàlla xamuñu yowmal xiyaam kañ la yonent yi xamuñu kañ la ñi yàlla yónni xamuñu kan la kañ la kon ndax deeti na yell ci ñun ñu toog rek ab waay bu xëdde cere mbuumam wala
هل يصوم؟
na lekk ba suur rek xëy rek daan ne suba la yowmal xiyaamati gént naa ko wala rawaan yi wax nañ ma ko wala ndax loolu dina yell du yell ci ab jullit muy gëm loolu kon ku ngeen déggati fa man iddaa maarifa qiyaami saa fa huwa kadabun asir ku ngeen dégg ci kaw suuf muy wootewu naan xam naa bés penc ci kañ la boo ko rusul ragaloo ko nekk da ngay fen ndax li mu wax yàlla rek moo ko xam kenn xamul kañ la li tax kenn xamul kañ la alquran moo ñu ko wax alquran moo ne ñu gaayaa ngi ñëw wër yonent bi naan ko yasaluunaka ani saa ayaana mursaha mu ne fi ma anta min zikraha إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها gaañaa ngi lay laaj naañ la yow Muhammad bis benn ci kañ la am na aaya bu mu ko wax sax yasaluunaka an issaa ayaana mursaaha qul innama ilmuha inda rabbi gaañaa ngi lay laaj bis benn ci kañ la na nga leen wax ne xam-xamu bis benn kooku sama borom moo ko moom jagleelu ko kenn laa yujalliha li waqtiha illa huwa saqulat fi samawati wal ard xoolal mbokk yi bés bénc asamaan ak suuf attanuñu ko ndax diisaay ndax ahwaal ñu ci nekk doomu aadama bu koo dékku te xam ngeen yàlla ngi laaj ci alquran a antum ashaddu xalqan ami sama yéen yéen a gën a tar bind wala asamaan doomu aadama boo koy gam-gamle ak yàlla ni mu bind asamaan kopp doole di nga fekk doomu aadama du tus ci asamaan léegi asamaan attanul bis bay doomu aadama bu ko yenu borom bi tabaraka wa taala mu ne yasalunaka ka annaka xafiyun anha gaa yaa ngi lay laaj mel na yow da nga koo xam waaye na nga leen tontu qul innama ilmuha inda allah walakin aksara annaasi la yaalamuun na nga leen tontu ne leen bés penc yàlla rek moo xam kañ la li ëpp ci nit ñi xamuñu ko bokk na ci beneen ci xadis bu cheikh bi ubbee sànq muy xadisu jibril ba mu laajee yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ko axbirni an saa wax ma bés penc kañ la mu ne ko mal mas'ulu anha bi a'lami min as-sa'il ki koy laaj de gënu ko xam kim koy laaj moo ko ko gën a xam sax nag gis ngeen kon kiñ koy laaj xamu ko kon yow mi koy laaj est-ce que gënoo ma koo xam man mi ngi koy laaj yonent bi tontuwu ko laaj na ko ngëm yàlla mu tont mu laaj ko lislaam mu tont mu laaj ko ihsaan mu tont mu laaj ko yowmal xiyaam kañ la mu ne ko yow mi koy laaj jàpp naa ne yaa ko gën a xam ki nga koy laaj kon su ko xamoon ni mu tontoo ñett yu weesu rek la koy jox so jawaab bi tontu bi waaye xamul kañ la moo tax kon dootul yell fekkee yonent yàlla muhammad xamu ko malaaka yi xamuñu ko kon dootul yell keneen di wootewu di wan ne moom xam na ko lakin ayuha al ahbab laqad ixtalafa al ulama fi l yawmi boroom xam-xam yi wuute nañ ci bis bañ ci kañ la waaye li wóor mooy bisu àjjuma la bés penc du taxaw ci kaw suuf lu dul mu nekk bisub aljuma loolu yonent yàlla muhammad moo ñu ko wax sallallahu alayhi wa sallam xayru yowmin talaat fihi sams yowmul jumaa bis bi gën a baax jant xëy di ci fenk mooy bisub aljuma ci la yàlla bind aadama ci la ko dugal aljanna ci la ko génne mu ne yowmal xiyaam du du taxaw lu dul ci bisu aljuma ci ban waxtu borom xam-xam yi wuute ci waaye li wér mooy ci tàkkusaan googu yàlla di giñ naan wal asr ndax yonent bi nee na yowmal xiyaam du jot lu dul ci tàkkusaan googu aljuma googu waaye ban ajjuma la ci ajjuma yi ak ban tàkkusaan la loolu lu yàlla yàlla moo ko xam kenn xamu ko ku dul yàlla tabaraka wa taala léegi nag yonent sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme kenn xamul kañ la mu daal ñu indil ay mandarga pour ñu mën a góorgóorlu waaj ndeysaan gis nga léegi ñu ngi ci jamono joo xam ne bu ñu tëddee ba ay quatre heures ay nit jóg jaar ci mbedd yi naan lan waaj jóg leen waaj lu ñuy waaj lu ñuy waaj dañuy waaj xëdd gis nga lii tamit mooy waaj fu ñu waaj jëm àllaaxira préparé lu nekk doomu aadama daf koy waaj boo bëggee dugg ci wàll gi sax da ngay waaj foog nga laaj say daal préparé nga sax daal yoo fay duggee foog sax nga wut satala wala kopp boo fay duggee gis nga mbokk yi yonente sallallahu alayhi wa sallam indi ñu ci mandarga yooyu ñaari mandarga yenn yi nekk yu ndaw yenn yi nekk yu mag sunu tomb waxtaanu tey dafa ëmb mandarga yu ndaw yooyu yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam fàttali jullit yi pour ñu bàyyi ko xel suñ ko gisee teg ci seeni bët wala ñu dégg ko ci seeni nopp ñu waaj xam ne àllaaxira jege na yooyu bokk na ci tomb bu ci njëkk tomb yi ñu tënk pour waxtaane ko fanweer ak juróom la bu ñu waxtu bi mayee bi ci njëkk mooy xurbatu islam wa ahlihi fi axiri zaman bu ñu demee ba àddina di waaj a jeex diine ji di lislaam lii di alquran ak sunna ku ci nekk da ngay tumaraanki comme ni diine ji tumaraanke woon démb ba muy doog a door loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko nettali ci hadisu muslim abu hurayra wax ko mu ne yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na bada al islaamu gariban wa sa yaudu gariban kama badaa fa tuba lil guraba nee na dina jiite lislaam bi muy tàmbali dafa tumaranke woon oustaz wax na ko léegi nee na ñi ci bokkoon fee si ñum néeg fee si ñum néeg ñu tuuti ba pare ñu leen di jëf-jëf joo xam ne adduna tuuti na ci nettali ko téere yi tuuti nañ ci bind ko nit ñu koy nettali ak di ko wax dañuy junj ndax ñaawteel fu mu toll wees na ko mbugal gi fu mu tolloon ëpp na ko loo ko nettali nettali am lu des loo ko wax wax am lu des ci ay ñaawteef ak ay metit ak ay mbon yu ñu leen doon def tàmbali ci moom sang bi sallallahu alayhi wa sallam wër këpp biir këram ak ñi ko daroon ci tumaranke boo xam ne kenn ñemewul woon feeñal wala yëkkati sax baatab lislaam wala nga wone ko wala am melokaanam tey foofu lañ toll lislaam dafa tumaranke léeg-léeg nga romb ab ay nit toog sax nga ni asalaamu aleykum ñu ñu ñu lay xoolaat dafa ne yow Arabie Saoudite nga jógee wala ci sa yére sax li nga sol nga gis ñu lay xool ndeysaan loolu jigéen ñi ñoo ci gën a xam dara wala yenn aasaar yenn melokaan yu ab jullit am di ko royee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga gis ñu la koy xase waaw ndeysaan léeg-léeg nga am benn mbokk bu ñëw rek jàpp si waaye yow yow yow foo jëmee lii ah yow lii lii lan la nii di xëcc di di ko jëm a café te di di saboté waaw ak yeneen ak yeneen loolu mooy wan ne lislaam tey dafa tumranki xoolal kenn bëggul nekk julit kenn bëggu ko aleykum salaam
te lu ruslu doy waar mooy ñun ñu nekk ci dëkk jullit ne gëm nañu yàlla islaam mooy sunu diine te koo ci wax kaay dund diine kaay mel melokaan bu yàlla wax mu lànk xoolal léegi ci tumaranke lislaam da ngay gis nit ñi dootuñu roy sax seen kilifa diine yi ñu doon roy démb léegi ay mbër la ñuy roy ak ay rappeur xaw ma ndax yegg si na fii de di watu ay dabala tent bopp yi karas karas tube yi ci biti génn silib yi def yu ñaaw yoo xam ne ab jullit war na rus yooyu mbokk yi loolu lu muy wane mooy tumaranke diine waaw yépp diine la ñuy bàyyi yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ñuy bàyyi loo xel loolu ñu xam ne mu jëntalu jamono diine ji ku ci bëgg a bokk foog nga nangu tumaranke tumaranke ci sa kër tumaranke ci say mbokk tumaranke fi ngay liggéeyee tumaranke ci koñ bi nga dëkk waaw da ngay wéet boo wootee kenn di ñëw booy wax kenn du la déglu suñuy woote duñ la woo boo ñëwee sax kenn du la accueillir ndax yaa fi indi sa bopp bu ñu yëgale koñ bi ñëpp la ñuy yëgal ba mu des yow loolu tumaranke la tumaranke weesuwul loolu ci say mbokk sax léeg-léeg ñu ne la liñ fi bëgg a wax wala liñ fi bëgg a indi ñun xamuñu lii te kenn du ko fi def te bu fekkee ni lii nga fi bëgg a def nga abal no loolu nag am na cosaan ci démb moo tax yonent yàlla muhammad mu ne bada al islaamu gariban islam bi muy commencé dafa tumaranke woon loolu foog ñu dégg ko ci suñu bopp yi ñu xam ko dana delluwaat ci lañ toll nii tey ci lañ toll ñaareelu tomb buy wane ne ñu ngi ci aaxiru zaman addinaa ngi waaj a jeex bokk na ci nag ci li ñuy dimbali mooy lu ñu wax rek nga xool ndax yow toll nañ ci wala tolluñ ci nga koy takk ñaareel mooy zihabu saalihin ñu baax ñi dañuy génn àdduna kenn par kenn yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ne يذهب الصالحون الأول فالأول فيبقى حفالة كحفالة السعير أو التمر من لا يباليهم الله بالا رواه الطبراني والدارمي ki yàlla yónni woon ci ñu nee na bu àddina di waaj a jeex nit ñu baax ñi dañuy génn àdduna dañuy dem waxtu yi ñu toll booy xool aalamul islaam yi li fi génn ci àdduna ci ay borom xam-xam yoo xam ne alquran ak sunna kese moo doon seen dund kenn xam nu mu toll ñoo xam ne ñoo doon teg te xeet wi di leen leeralal yoon yi te dañu tegaloo ay weer ay fan ay at yu ndaw la ñuy rawante lan mooy des ci kaw suuf ah ay simbkat ay gaynde ay mbër ay musicien ay mannequin ay buxaaba loolu moo fi des yonent yàlla Muhammad moo ko wax fa yabqa xafaala ka xafaalati sair awi tamr mu ne ay nit yoo xam ne ay xoox lañ ay xoox ay xottit ay gësit ay ruusit ay mbalit loolu moo fi des ci kaw suuf loolu mooy tey li am sunu réew mi lan lañ wax quatre-vingt-quinze pour cent ñaata lañ musulman waaye loolu fan la feeñ feeñul fenn ci sunu dund lu ko waral mooy ñu koy tuddawoo ñu koy wootewoo yàpp xafaala ay xoox la ñog ay xot xam ngeen ne xoox ak xot ak xollit kenn du ko lekk abadan su ko defee loolu suñu ko yonent yàlla Muhammad di wax tey ñu gis ko lan moo nekk ci kaw suuf ñan ñoo fi am valeur ñan ñan tey ñooy idole yi ñan ñan ñooy royukaay yi ñun ñan la ñuy roy suñu doom yaa ngi ni ñan la ñuy roy xale yu góor yaa ngi ni ñan la ñuy roy xale yu jigéen yaa ngi ni ñan la ñuy roy kenn royatu fi ku baax dul ku yàlla gërëm ku yàlla bëgg li ëpp ci xeet wi tey ñu yées ñi ñi la ñuy roy loolu lu ko waral mooy li yonent yàlla mu wax ne yazahabu salihun ñu baax ñi dañuy génn àdduna ñan ñoo fi des ñoo xamante ne kenn respecté tu leen gis ngeen 23 juin bi passé Sénégal dañoo am problème ba dem ci bàmmeel yi di yee ñu ñu baax ñi naan kaay leen ngeen dimbali nu ndax ñi fi des kenn faale tu leen bu fekkee dëgg ngeen wax ma ko 23 juin bi passé bi ñuy taal assemblée ban kasa lañ doon teg ci rajo yeeg télé yi
Allahu akbar.
ana kooku dafa génn àdduna wala mu ngi fi pourtant ñuy dund nañ fi mais kenn faalewu leen mooy wa yabqa fil ardi xafaala ñi fi des kenn du leen faale parce que lu tax toogaluñ fi diine dafa am ñuy dundee diine ak ñuy dundal diine ñaar la bokkul de dundal diine ak dundee diine ñoo xam ne duune ji la ñuy dundee am na ñoo xam ne te loolu kirim weesuwu ko diine dañ koy dundal yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ba muy wax ulama yi al ulama warasatul anbiya wa inna al anbiyaa lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman wa innama warrasu al ilma faman axaza bi axaza bi xazin wafir yonent bi nee na yonent bi nee na boroom xam-xam yi ñoo doon yonent yi lan la fi yonent yi bàyyi xam-xam mu ne ku ci jàpp jàpp ci cër bu rëy ndeysaan abu hurayra radiallahu anhu wa ardahu daan bàyyi ba naaj bi tàng mu dem ci marché ba daan ne ñu ngi séddale ndono yonent bi li fi yonent bàyyi woon ñu ngi koy séddale waa marché bi fëx taw ñëw dugg jàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam abu hurayra ne tëll taxaw ci seen digg ñu ne ko ana bagage yi ana alal ji ñuy séddale anam mu ne mi ngi nii ñu ne fan la mu ne gisu leen mbooloo mi toog di jàng ñee ngay fàttalanti ñee ngay julli mu ne lii la fi yonent bi bàyyi sallallahu alayhi wa sallam am na ñëw na ci beneen hadis am ñu jam hadis bi yonent bi ne al ulama warasatu l ambiya ma lam yuxaalitu sultaan wa yudaaxilu dunya fa ida xaalatu sultaan wa yudaaxilu dunya faqad xaanu rusulu jamian fahzaruhum borom xam-xam yi ñoo doon yonent yi feeg bëgguñu àdduna duggantewuñ ak nguur suñu bëggee àdduna gën a bëgg jaami yàlla yi àddina gën leen bëgg ay teere ay kër ay ay ay kenn xamul da ngay gis boroom xam-xam bu ñëw ba tefesu géej ne sax fàkkal leen ma ci biir géej gi àdduna la ñuy yëkkanti àdduna boroom xam-xam démb diine moo ko ñoroon ak jaami yàlla yi nu ñu demee aljanna tey boroom xam-xam yi ñooy jiiroo àdduna bi moo tax ñu dem ba kenn faaleetu leen ba Sénégal am problème léegi ñu dee ñu ñooy ñëw di wax ak ñun ñuy doog a ñuy doog a sunu mbir di doog a baax ñu dee ñu ñooy ñëw di doog a wax sunu mbir doog a baax yonent bi ne ñu baax ñi dañuy dem kenn par kenn mu ne du des ci kaw suuf lu dul ay xott nit ñoo xam ne ay xott lañ ñetteelu tomb riddatu aqwamun kasir fi axiru zaman yonte yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na sunu demee ba àddina di waaj a jeex mu ne lu baree bare ci jullit yi dañuy murtat nekk ay yahud ak ay nasaraan wala ñu nekk ay mushrik ci hadisu sawbaan yonte yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ne laa taqumu saa hatta talhaq qabailum min ummati bil mushrikin wa hatta yabud wa hatta yubad qabailun min ummati al awsan rawahu muslim yonte yàlla muhammad nee na yowma alqiyam du jot laa taqumu saa bés penc du jot ci xeet wi ci umma bi balaa bis penc di ñëw li ëpp ci xeet wi ci sama xeet min ummati danañ dem nekk ay mushrikuun di bokkaale nga gis waa ji génn fajar ci jàkk ji dem dugg ci xàmb bi di sangu xàmb xana gis sénégalais jullit gëm yàlla gëm xàmb munu nekk hatta tu'minu billahi wahda yàlla kese leneen bokk ci gëm yàlla gëm ay béjjën gëm ay xaaw gëm ay pitaaw gëm ay jabar gëm ay yenent bi nee na balaa yowmal qiyaam jot li ëpp ci ñi ci xeet wi ay bokkaalekat la ñu nekk alxuraan moo ñu ko wax wa ma yumin aksaruhum billah illa wahum mushrikun waaw wallahi wallahi buñ doon dugg ci jàkka yi di palpe ñiy julli léeg-léeg nga ni nit nii jàpp daj bëjjën ci ndigg li wala ci mbagg yi loolu amu fa place béjjën tukulóor yi nee nañ allah du sina nafanno ummataa koy hoore joomum béjjën bu doon jëriñ du jóge ci bopp borom ana béjjën fu mu nekkoon ci xar ana xar ma rendi nañ ko ana yàpp ba lekk nañ ko ana der ba daaj nañ ko ana yax ya seeñu nañ ko nga jël béjjën bi naan kuma laal dee te béjjën sobe la kon ab jullit du nekk bokkaale kat bokkaale dafa dangereux mooy bokkaar bi gën a rëy ci bàkkaar yi laaj nañ yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam bàkkaar yi ban bàkkaar moo ci gën a rëy mu ne an tajala lillahi niddan wa huwa xalaqak nga utal yàlla dend moroom te yàlla la bind tribunal bi gën a rëy ëllëg yowmal qiyaam lu ko waral bokkaale ana wal ins wal jinn fi nabain azim axluqu wa yubadu gayri wa arzuqu wa yuskaru siwaaya man yàlla maa bind ñu jaamu keneen man yàlla ma wërsëgale ñu sant keneen xoolal loolu tey di nga dégg ci rajo yi ñuy woote ay cant doo dégg mukk dañuy sant yàlla man de mosuma ko dégg dégg naa ci rajo yi ay cant ba tàyyi mais dégg ma dañuy sant yàlla mu sant diw sant samba sant demb sant moodu rek kenn du sant yàlla limaasa lu tax duñ sant yàlla te xoolal yàlla lim nu defal li amul lu kenn def lépp yàllaa ko def kenn defu fi dara léeg-léeg nga dégg ñu ne diw moo niinal ceeb bi diw moo fi indi ndox mi te diw moomu anamu dee na bu yàgg kon kay indiw ko fi lu tax bi mu dem yóbbaale wu ko fii la ko fekk fii la koy bàyyi fii lañ koy fekk fii lañ koy bàyyi ab jullit du nekk bokkaale kat munoo gëm yàlla gëm leneen xoola yonent bi ni mu toll yàlla ne ko la in ashrakta la yahbatanna amaluk wala takunanna min alxasirin kan la yàlla di waxal muhammad xayru xalqillah ma xalaqa al ilahu wala tura basaran yuraka muhammadin bayna alwara ñi fi yàlla njëkk a wàcc fekk ñu fi ku mel ni muhammad ñi fi mujj duñ fi bàyyi ku mel ni muhammad yàlla ne ko soo ma bokkaalee sa jëf yépp dana yàqu te di nga bokk ci ñu perte innahu man yushrik billah faqad harama allahu alayhi aljanna wa ma'waahu naar wa ma lizalimina min ansaar yàlla ne li wóor tey mbir képp ku ma bokkaale dendal maag lenn wala kenn yow moom sa liste sa tur génn nañ ko ci liste waa aljanna safara nga jëm direct kon dafa jot ab jullit bàyyi bokkaale bokkaale nag lu sew la léeg-léeg nit di ci dund ba jamono dee fekk ko ci mu defa ne moom mus ko def ashirku axfa min dabibi nam la bokkaale dafa sew ba mel ne tànki xorondom mu nekk ci lëndëmu guddi fi zulumati sawda ala xajarati sawda mbelantaan bu ñuul kukk di dox ci xeer wu ñuul kukk ci lëndëmu guddi ñu ne xoolal mbelantaan bi ndax di nga ko gis noonu la bokkaale lëndëmi noonu la sewee moo tax alquran nañu li ëpp ci nit ñi wa ma yumin aksaruhum gis nga iman la jiital wa ma yumin aksaruhum billah illa wahum mushrikun foog rek ñu dendale waa yàlla nag ah waaw yàlla kese sax dafa ri tax léeg ngay dégg loolu Sénégal yàlla kese yi daal doon nañu xas suñu benn waay boo xam ne papaam dafa génn àdduna ñu ñëw ne dañuy dëj mu ne kenn du fi dëj suba ba ngoon ñuy wax benn waay jóg ne gis ngeen kii dafa dof yàlla rek la gëm dafa dof nañ leen dem kenn mënut a wax lu mu dégg kii yàlla rek la gëm dafa dof kon ku gëm yàlla nga dof gis ngeen kon bala ngay nite nee nañ ci Sénégal bala ngay nite nga gëm yàlla ak mais bu dee yàlla kese ñu ne bokkoo te nag yàlla kese mooy assurance bi keneen bokkul Ibrahima loolu la déggoon moo tax mu ne mbokk yi wa bada baynana wa baynakumul adawatu wal bagda hatta tu'minu billahi wahda yàlla kese keneen bokkul yàlla rek il faut yoon wi ñu xam ne yàlla rek la keneen bokku ci kon bokkaale ngoog nekk ñetteelu tomb ci màndargay aaxiri zaman ngeen xool nag tey bokkaale nu mu fees réew mi daanaka ñi leen jiite ci wàllu addunaak wàllu diine ñi ci ëpp ay bokkaalekat lañ ci wàllu adduna moom daanaka ñëpp ay bokkaalekat lañ kenn gëmu ci yàlla ñëpp ay xërëm lañ gëm ak ay xarfa fuufa xoola rek kuñ ci nawee lu muy njëkk a def daw de daw dem ci bàmmeel yi bàmmeel lu muy jëriñ te yonent bi nee na rubba qabrin yukaf wa saahibul qabru fi nnaar bëri na yenn saa yi ñuy wër bàmmeel di ñaan fekk borom bàmmeel baa ngi baam mu ngi safara yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa tere ku tabax bàmmeel lu tax al qabru rawdatun min riyaadil janna aw xufratin min xufari nnaar bàmmeel benn jardin la ci jardin aljanna yi wala mu nekk xur ci xuru safara yi bu dee waajaa ngi aljanna nga tabax bàmmeel bi ah terrain yi nekk aljanna étage yi ak xéewal yi ak yi ñi ko tabaxal fii ban moo gën yow aljanna bu fekkee waajaa ngi safara ñu tabax bàmmeel bi boobu moom ban njëriñ la am ñaari benn amu ci importance ñeenteelu màndarga wala ba tey ci hadis ñetteelu tomb ci teewaayu bokkaale ci hadisu anas yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam mu ne laa taqumu saa hatta laa yuqaalu fi l ard laa ilaha illa allah axrajahu ahmad bi sanadin qawi yonent yàlla muhammad nee na yéen a ngi jëm jamono li leen di wan ne jege ngeen yowma alqiyam mooy kaw suuf kenn dooti fi wax laa ilaha illa allah tey boo boo doon lim jullit yi mun a wax laa ilaha illallah ak yi ko gëm yu néew lañu bal sax Sénégal dañoo jël laa ilaha illallah daal di koy def ay façon façon fi mu nekk nii mun naa leen a wax fukki laa ilaha illallah yu bokkul te laa ilaha illallah bu ci nekk dafa am ñu ko moom hey la hey la ñan ñoo moom loolu laa ilaha illallah ñan ñoo moom loolu ay façon façon jël laay laay laa xaaj ko yow sax dem nga ba tàqali ko sa mbokku julit bëggatuloo di ko wax façon bi mu koy waxee pour yow nañ la xàmmee sa côté bopp te laa ilaha illa bi muhammad indi woon benn la laa ilaha illa allah amul leneen ñii di yokk ñii di wàññi suñu benn oustaz yal na ko yàlla yërëm oustaz abdul karim Gueye dafa dugg ci jàkk ji ginnaaw ju liggéey gaa yaa ngi waaj a naafi la heure bi jotagul ñu naan ala ila mu ne déet bu leen ci yokk hamza bi benn waay ne waay wax leen waay mu ne déet bu leen yokk wax leen laa ilaha illallah rek mais bu leen yokk ndeysaan gis nga ah laa ilaha illa mooy lan mooy ndax yàlla am na hamza bi lan la istifham la a azhabu mooy lan a akulu damay lekk
ah la ilaha illallah am fa place la ilaha illallah faqat mais tey sax ñun mënatuñu wax la la ñuy wax laay laay la laa baat yi ëpp ci doole ci lislaam baat yi ci ëpp doole sénégalais yi mënuñu ko wax waaw la ilaha illallah astaghfirullah subhanallah ñaari ñett yi mënuñu ko wax ñeenteel bi nag mooy asalaamualeykum da ngay gis fu ñu war a wax laa ilaha illa ñu naan laa ilaha illa da ngay gis ku yor ngandum kurus laa ilaha illa laa laa laa ilaha illa mooy lan waxoo dara munoo fexe ba li ngay ut nga am ko gis nga numéro téléphone bi bu ñu la ko joxee nga fausse ci benn chiffre ki ngay woo ba àllaaxira du la wuyu lu tax
naa bàyyi cinq lu tax du la wuyu parce que da ngaa faussé benn numéro soo waree wax laa ilaha illallah nga ne fa laa ilaha illallah loolu xale yi di wax rek da ngaa ngaa ñepp waxoo dara foo nga wax baat bi tudd ko tuddal baat bi yonent yàlla Moussa dafa ne yàlla xamal ma benn baat boo xam ne bu ma la ñaanee rek nga may ma yaa ne ko Moussa qul laa ilaha illallah mu ne yàlla loolu ñëpp xam nañ ko pour moom dafa jàpp ne li ko nit ñi di wax dafa bëri ba xanaa maanaa bi boog ak barke bi dafa dañ ah allahu akbar yàlla mu ne ko déedéet Moussa buñ jëloon asamaan yi juróom-ñaar teg ci plateau ci blanche ñu jël laa ilaha illallah teg ci beneen plate mu ne la maala ilayhinna laa ilaha illallah kon ñun xamuñu baat bi moo tax ñu koy fowee fan nga koy fekk tey ñu koy wax ci dansine yi ci baar yi waykat yi di ko way jigéen ñi di ko fekk ñi naan sàngara di naan laay laay lala ñeneen ñi tux yàmbaa ba ni tar jël seen i ndënd di tëgg laay ba bët set kenn du dégg ci koñ bi li yuuxulee loolu loolu taxul woon laaj ci laa ilaha illallah laa ilaha illallah moo tax yàlla bind asmaan moo tax yàlla bind suuf moo tax yàlla bind jaam ñi moo tax yàlla jox yonent yi ndigal ne xeex leen tuur leen deret képp ku bañ a wax laa ilaha illallah Moussa keroog bi ko yàlla wooyee ci tuuri Sina da koy lan la ko wax innani ana allah laa ilaha illa ana man mi maay yàlla amul benn buur bu dul man waaye yonent bi nee na bokk na ci màndarga yow may xiyaam danañ dem ay jamono yoo xam ne laa ilaha illallah kenn dootu ko gëm kenn dootu ko waxati ci kaw suuf mbokk yi ñëw na ci hadis abu hurayra ci saxiixayni buxaari ak muslim yonti yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ne laa taqumu saa xatta yubu as dajjaaluuna kazzaabuun qariban min salaasin kullun yazamu annahu rasulullah mu ne laa nabiya baadi mutafaqun alayhi yonti yàlla muhammad nee na balaa bés pénc ci jot balaa yowmal qiyaam nem am lu tolloog fanweeri fenkat danañ feeñ ci kaw suuf naan ay yonent lañ yàlla leen yónni ñoom ñëpp dinañ ne yàlla leen yónni loolu ñun am nañ ci fii Sénégal ba am ci jigéen faatu na yàlla yàlla noppal nañ ci moom am na si ndaw su nekkoon journaliste nekk RTS di liggéey di ba retraité daan na jibril ma feeñu yàlla def ma yonent te jigéen la noonu la nekkee di woote ba xëy dee dégguñu kenn kenn di ko weddi te li ci garaaw mooy Sénégal ku woote rek am ay taalibe ak loo mën a wax leen rek ngay wax de doo am ay taalibe mooy laa ilaha illa muhammad rasulullah loolu de doo am taalibe waaye yeneen xuraafaat ay xarfa fuufa ay def defle ñëpp ñëw wuyu si la te jàngeen ci suratu yusuf yàlla mu ne wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim ay góor rek laa yónni ay góor yàlla mosul yónni yónent bu jigéen kon li yonent bi saa salaam ne balaa àdduna jeex danañ teewlu ay dajjaal yoo xam ne danañ jege fanweer ak lu ko jege kenn ku nekk ci ñoom naan yonent laa yàlla ma yónni loolu dégg ngeen ko ay woote yu dul jeex ci biir Sénégal xattal aan ba fii nu toog yéen a ngi koy dégg ñuy wax yonent bu ñuul am na Sénégal ñeenteel bi ci màndargay bés bënc yi yonent wax ne yow man xiyaam jege se na mooy tadaaul umam ala ummati muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci hadisu sawbaan abu hurayra nettali ñu ko yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalam nee na yuusakul umam an tudaa alaykum kama tadaa al aklata ila qasatiha qala qailun wa min qillatin nahnu yawma idin qala bal antum yawma idin kathir walakinakum gusaa ka gusaa u seyl yonent yàlla muhammad nee na bu ñu demee ba àjjana di waaj a jeex dañuy gis yeneen xeet yi ñuy jiiroo xeetu muhammad comme ay ponkal ni ñu tiimee boolub ceeb di ko jiiroo ndeysaan kenn ci saaba yi ne yonent xanaa day fekk ñu tuuti boog ñun jullit ñi bañ ñu jiiroo mu ne déedéet bal antum yawma idin kasir walakinakum gusaa ka gusaa u seyl da ngeen a bëri de mais da ngeen a mel ne puurit puurit ban njëriñ la am puurit da ngeen a mel ne taw bu taw waame bi di wala ngaan di dem noonu wala ngaan ba ndox mi di demee nga gis puurit bi ci kaw puurit amul benn njëriñ gis nga ci ñun ñi bu ci ndogu jot kenn ndogu jotoon léegi ñu jox kenn kaasub ataaya bu fees daal puurit bi nekk ci kaw lan lay naan bàyyi fa leneen li lan mooy des ci kaas bi waa ji naanee ba pare puurit lu tax dugaloo sa baaraam luqati ko mar ko amul njëriñ yonent bi nee na da ngeen a bëri lool da ngeen a xas ci dëkk bi mais amu leen njëriñ sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy tey xoola alamul islaam yi li benn borom xam-xam doon wax mu ne tey jullit ñi un milliard lañ un milliard waaye nee na ndeysaan un milliard un milliard ñaata chiffre la ndax mun naa ko xam un milliard ñaata chiffre la ah sept ëpp na ko neuf la neuf chiffres dix chiffres waaw léegi man benn moomu ci amal importance chiffre bu njëkk bi lan la un yi ci des jullit yëpp ay zéro lañ nit ñëpp ay zéro lañ alamul islami bi zéro zéro benn bi moo ci am njëriñ muy un bi li ci des yëpp amul lu muy tekki loolu la yonent bi di wax fii walakinakum kasir walakinakum xusaaka xusaa usay da ngeen a bëri lool mais amul benn njëriñ xoolal keroog ba jullit ñi motee ñetti téeméer ak fukk ak ñett ñoo samp diine ji ñuy tey ñu nekk ca Badr jullit ñi ñetti téeméer la ñu woon ak fukk ak ñett keroog yonent bi daa tiib ba yëkkati loxo yi di ñaan ba kaala gi naaw naan yàlla lii nga fi am de ñii de buñ leen reyee kenn dootu la fi jaamu ñii rek ñoo fi nekk ñu ngi nii sallallahu alayhi wa sallam tey ñu ñu nekk un milliard amuñu benn njëriñ wala ñee ñetti téeméer ak fukk ak ñett ak un milliard lu tax xam nga lu tax yonent bi moom mu ngi nii di ko nettali mu ne yàlla tabaraka wa taala dafa rocc ci seeni xol yéen julit yi daf cee rocc lan la ci rocc ragal yàlla lan la ci dugal bëgg àdduna ak ragal dee bëgg àdduna ak ragal dee yonent bi yàlla dimbali woon na ko kum ne damay xeex ak yow mu ne nusirtu bir rox bi masiratu sahr kum ne maa ngi ñëw weeru yàlla da ngay tiit balaa mu yegg si tey jullit ñi kenn ragal wee ay dëkk ngay lim ci dëkk jullit ñuy rey xoolal George Bush bi wàcc rey na un million musulman Irak un million musulman la George Bush rey ñoo xam ne tegu ko fenn lu ci dooleem Palestine moom kenn du wax li fay xëy di dee ci jullit xooleen Tchétchénie yi dëkk yi jullit yi rek ngay dégg ñuy bombardé xoola France ñi gën a bañ islam ci kaw suuf mooy France doomu Jean-Marie Le Pen lan la wax semaine bi passé mu ne jumaa yi bu feesee ba nit ñi génn ci biti lal si yaada yi mu ne dafa mel ne Hitler moo dellusiwaat di coloniser France mu ne loolu la jumaa yi di indi fi mu nekk nii xoolal jigéen ñi muuru di muur seen kanam dañ leen jàpp di leen tëj kaso di leen fayloo ay amende nii ngay seetaane internet ñu jàpp jigéen ñi ay góor jàpp leen di ramas di sànni ci ay oto mel ni ay xar xoolal julli ñi niñ toll kenn du wax du ngeen dégg benn jullit wax ci loolu fan la jullit yi jëm bu ñu demee ba leen di tere sax di leen tere tabaxi jàkk di leen tabax tere manaar te ñoom ñuy def lu nekk jullit yi bëri fa am droit jaamu yàlla ñu ne leen non du ngeen fi jaamu yàlla puisque fii état la yëg la te laïcité mooy lan mooy ku nekk ñu bàyyi la ak li nga gëm bokk mais xam ngeen ne jullit ñi bàyyi leen ak li ñu gëm wala ku nekk nan la bàyyi nga def li la neex ñee def lu leen neex ñu ne ñi duñ def luñ bëgg loolu day wan ne tumaranke bi lislaam tumaranke xeetu lislaam niñ koy giiroowee tey ci adduna bi lenn ngeen di xam mooy fuñ ñu ëpp kenn du fa wax ñun nag fuñ leen ëpp comme nii jàmm moom mën na fi am da ngeen a baax yéen da ngeen am taraanga fii moom ñëpp benn lañ léeg sax nga ne ku ne sunu mbokk nasaraan yi sunu mbokk xanaa seen mbokk sa mbokk sunu mbokk yahudi yenn saa nga dégg ku ne cardinal bi benn sëriñ bu ne cardinal bi maa ko ñaanal mu nekk cardinal dégg la loolu Sénégal lan mooy mission cardinal bi mooy détruire diine la ilaha illa muhammad rasulullah nga koy ñaanal koo xam ne su amee li mu bëgg mission yonent bi du réussir nga koy ñaanal yow nga ne yaa ko ñaanal ngir mu falu loolu ngir mu am grade est-ce que yow dégg nga sa diine yow est-ce que comprendre nga yow l'islam te waxuma ay ay ay xale ñoo koy wax de loolu ñi gën a rëy ci Sénégal ñooy wax lii may wax nii cardinal bi maa ko ñaanal dina nekk cardinal maa ko ñaanal wala leen dégg leen ko loolu moo leen di wan ne tadaawul umam ala ummati muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi saxaaba laaj ko ne ko waaw yonent xanaa dafa fekk ñu tuuti bañ ñuy jiiroo mu ne déedéet di ngeen a bëri mais amu leen njëriñ comme puurit ngeen mel lu ko waral mooy yàlla dafa dugal ci seen dënn yi benn feebar saxaaba yi ne ko feebar boobu mooy lan mu ne alwahn ñu ne ko lan mooy wahn lu muy tekki mu ne hubbu dunya wa kirahiyatul mawt bëgg àdduna ak ragal dee ndeysaan bëgg àdduna xam ngeen sahabatul kiram lan lañ ñu rawee mooy bañ àdduna bëgg dee ñun dañoo bëgg àdduna ragal dee ñoom dañoo bëgg dee sànni àdduna fële abu darda am nay gan ci jamono seddaay mu dugal leen ci biir néegam jox leen sër nan sàngu bi ñu sàngee seen tànk sëri yam seen dënn seen yaram yi ci kaw bopp bi liw bu ñu xëccee ci kaw tànk yi liw kenn ci ñoom daan ne beneen gan gi mu fanaandool waaye nañ dem suñu njaatige bi mu jox ñu beneen sër mu ne tëll seen abu darda bokkatu fële moom sànguwul mu dem tëdd ba fajar jot ñu julli ji ñëwaat mu ne ko waaw yow sëriñ bi mu leen di laaj mbaa nelaw ngeen kenn ki ne ko ñu ngi koy nelawun lu tax mu ne sedd bi moonu xaw a rey ba yeewu naa ci guddi gi sax pour nga jox ma sër abu darda ne ko ñun sunuy bagage nekkul kër gi mu ngi sunu beneen kër gi keneen ki nga xam ne déggul moom mu ne kon de kër gi kay kenn du fi fanaan ci kër googu bagage yi nekk la ñuy dem mu ne ko kër googu këru alaxira la wa ma tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah ñun lu ñu am yëpp ñu ngi koy envoyé mu dem loolu mu ne ñoom dañoo bëgg alaxira ndax yàlla wax na leen ci alquran wala alaxiratu xayrun wa abqa yéen nag bal tusiruuna alxayata dunia Xaalid ibnul Walid bu daan xeex ak gars yi ba jàkkaarloo ñaari équipe yi jàkkaarloo ñaari kuréel yi ñaari armée yi jullit ñi nekk ndeyjoor yéeféer yi nekk càmmoñ day taxaw def discours ba pare daan na yéeféer yi ataytukum bi qawmin yuhibbuuna al mawt kama tuhibbuuna al xayaa yéen yéeféer yi gis ngeen ñii ma indi yéen ni ngeen bëggee dund ñii noonu lañ bëggee dee yéen da ngeen a ñëw pour ñibbi ñii dañoo ñëw pour dugg aljanna moo tax saxaaba yi ñaar lañ doon teg seen kanam imma sahada wa imma nasr kenn mun leen woon téye ci àdduna kenn mun leen woon téye wallahi sahaba muhammad itilaire dafa toog ba ci yàgg mu ne man damay dama waa jooju tudd muhammad man dama ko fan itilaire moo taxoon mu am doole ñu ne ko lu tax mu ne kooku laa gis mu ne àdduna bi ku ut ku ut ñu lay xeexal foog nga utal leen fu ñu nekk foog nga utal leen camp foog nga utal leen tëni foog nga utal leen budget foog nga utal leen arme mu ne kenn doongu laa gis mu am ñu koy xeexal utul tëni utul arme utul budget utul dara danaan hayya alal jihad gaa yi topp ku ñu ne kan mu ne Muhammad Hitler laa wax de Hitler xoolal ñun Muhammad dong mooy xëy suba ne hayya alal jihad nga gis ñoo xam ne dañoo fanaanoog seen séet xëy duñu tal sax sangu ndax bëgg yonent bi dem wuy jikko dem ñu rey leen ñu seen ay malaaka wàcc yor ndox di leen sang Hanzala Hanzala te xam ngeen ne ku faatu ku ñu rey ci jaxaat kenn du la sang ñu gis ay malaaka wàcc indi ndox jële ko firdaws di ko sang pour mu dugg aljanna séet la bàyyi séet la hawla wala quwwata illa billah mbokk yi jullit yi tey li leen dal mooy bëgg àdduna ragal dee bëgg àdduna saxaaba yi ñoom dañoo xamoon ne àdduna day jeex àllaaxira du jeex moo taxoon li ñu am ñu am ko ñoom ñëpp da ngay jàng même temps ñoom imam malik ñu ne la imam malik amul woon kër ci àdduna ndeysaan ñoom ñëpp am na ci ñoo xam ne bi ñu amee ñeen fukki at dañoo lem seeni lal lal nooy nga torop waaye lal yi nekk aljanna ñoo la gën a nooy alquran mënu ko nettali yàlla mu nañu kaanu qalilan min alleyli ma yahjaun kaanu qalilan min alleyli ma yahjaun lu néew ñoom nekkoon nañ lu néew lu néew la ñuy nelaw guddi wa bil ashaari hum yastaghfiruun ñoom ñëwuñu woon adduna pour dëkk fi gëm adduna màtt adduna ak seen i dëgëj déedéet dañu defoon adduna benn jaarukaay yi xam na ñu ngi jëm ci yàlla tabaraka wa taala ñu préparé seen adduna seen alaxira ñun kenn bëggul dee ñee ku ci demoon xare wala saxaaba bi doon lekk tàndarma ñu ne hayya alal ji jihaad mu ne baxin baxin ñu ne ko loolu mooy lan mu ne ba ma fi toogee di lekk tàndarma yi def may tardeel te aljanna laa bëgg a dugg keroog bañ jamee ali lan la wax fustu wa rabbul kaaba texe naa fustu texe naa aljanna rek laa bëggoon dugg dem naa fustu texe naa ñun ku mu wóoroon ci ñun sax boo dee dugaaño ñu ne dee ngi nii da nga naan ah xaar ba ci kanam quoi parce que femme yu ba war a régler ñee buñ leen ajjanaa ngi ni dañuy daw duggi allahu akbar xoolal yaay ay ba ci jigéen ñi xoolal Fatima yonent bi dafa nekk sukura daal di koy woo dee ko Fatima jooy yonent woowaat dee ko Fatima ree ah yonent bi génn àdduna ñu denc ko ñëwaat ñu ne ko yow ak ñu jaaxal Fatima gis nañ yonent bi woo la ñaari yoon dee la benn bi nga ree benn bi nga jooy bi mu la bi nga bi mu la dee nga jooy lan la mu ne daf ma wax ne feebaram bi du ci wér day faatu mu ne loolu moo ma metti ma jooy parce que moom mooy sama wéttal bu demee ma wét ñu ne ko waaye woo na la dee la nga ree mu ne daf maa wax ne bu demee du yàgg maa koy njëkk a fekki ma kontaan moo tax ma ne allahu akbar xoolal ñooñu ni ñu bëggee dem àllaaxira xoolal ñooñu ni ñu bëggee dee xoolal bilaal nekk ci sukuraat jabar ji naan waa musibata mu naan ko la quuli waa farahata ndaw si naan waa musibata mu naan quuli waa farahata ndaw si ne ko lu tax mu ne ko gadan alqil ahaba muhammadum wa sahba ëllëg sahaaba yi laay fekki muhammad ak sahaaba yi laay fekki muhammad laay fekk ak sahaaba yi ñu ñu dañoo gëmoon dafa nekk ci sukuraat di waaj a dee méttit méttitu dee jabar ji xool ko ndeysaan ndax dee bi ni mel jabar ji naan woy sama musiba bi ay man musiba bi nar a wàcc sama kaw mu naan ko déet ndaw si waxal kontaan naa ndaw si ne ko lu tax mu ne ko maa ngi jëm ci soppe ya Muhammad laay wuyu ji ak sahaaba yi ñu faa jëm Bilaal mu ngi dund ci kaw suuf ay tànkam di yëngatu biir aljanna Bilaal a ngi ci suuf di dox tànk yi nekk aljanna di yëngu mbokk yi il faut ñu comprendre lan moo tax sahabatul kiram nekk ñu ndaw ci kaw suuf ba yàlla naan leen bu fekkee téeméer ngeen di ngeen xeex ak ñaari téeméer bu dee junni ngeen ngeen xeex ak ñaari junni benn nit ñaar la doon xeexal ci yéeféer benn nit ñaar gis nga waaw xoolal loolu lu mu graawee ñun tey ñu nekk un milliard ba pare ragal dee jullit ñi bu fekkoon ne dañoo gëm alaxira kon islam mooy ràññee ci àdduna kufru du fi am place puisque yéeféer yi yàlla moo ñuy wax ci suratu baqara wa la tajidanna أحرص الناس على الحياة ولتجدن أحرص الناس على الحياة ah gis nga yàlla nee na bokkaalekat yi ak yahud yi da nga leen fekk ci kaw suuf ñoom ñoo gën a bëgg a dund yawaddu ahaduhum law yuammaru alfa sanatin wa ma huwa bi muzahzihi min al azab kenn ci ñoom dina bëgg a dund junni at ak lu ko teg te yàlla nee na du tere bu dundee junni at yi ba pare ñu dugal ko biir safara sahaaba yi ñoom ndeysaan ay at yu néew ñu islamiser golfe bi yonente sallallahu alayhi wa sallam génnul àdduna lu dul drapeau la ilaha illallah mooy tim golfe bi lépp la ilaha illallah muhammad rasulullah lu ko waral mooy bëgg alaxira ak sori àdduna mbokk yi juróomeel ci màndarga yi axiri zaman mooy nuqdatu uraatul islam yonent bi nee na bu ñu demee ba àddina di waaj a jeex dañuy jàpp pas-pasu lislaam yi di ko fecci xam ngeen ne lislaam qawaid alshari lislaam ay ponk sharia la yàllaa ko tënk jox ko yonent bi yonent indil nu ko yonent bi nee na balaa àdduna jeex pas-pas yooyu dañ koy firi benn par benn mu ne awaluha alhukmu wa saaniha alsalaa li ñuy njëkk a bàyyi mooy attewoo lislaam tey ci kaw suuf fan ngeen dégg fu ñuy àttewoo lislaam fan am na ay dëkk rek yoo xam ne jël nañ lenn lu leen neex sànni leneen li fële waaw fu ñuy àttewoo lislaam diir fatiha ba naas sharia bi yëpp ñu teg ko bëri gudde booy booy lim doo am juróomi dëkk booy lim doo am juróomi dëkk laa wax boo koy lim doo am juróomi dëkk mu ne àtte ngeen di njëkk a bàyyi te jàngeen ci alquran yàlla mu ne inil hukmu illa lillah jullit du attewoo lu dul yàlla lu mu wax jàngeen ci alquran yàlla wàcce ñetti aaya yooyu di wax ci hukmu wa man lam yahkum bima anzala allah fa ulaika wa man lam yahkum bima anzala allah fa ulaika wa man lam yahkum bima anzala allah fa ulaika ñett yëpp daj alquran di weddi ñi nga xam ne dañu ne gëm nañ yàlla gëm nañ muhammad yàlla ne ko fala wa rabbika la yuminuun hatta yuhakkimuuka fi ma shajara baynahum hatta yuhakkimuuka addamir yaudu ila man muhammad ku wax ne julli naa man yàlla duma ko nangu ku wax woor naa duma ko nangu ku aji màkk duma ko nangu ku joxe asaka duma ko nangu ku tudd baatu seede yi duma ko nangu lu dul ñu ñëw bu ñu amee jafe-jafe am problème ñu nangoo woo àtte ci yow loo wax noonu la te boo àttee ba pare wa yusallimu taslima su ma laa yajidu fi an- anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima dañuy nangu jébbalu li nga àtte jox la lépp ne la noonu la daal di nangu ha tey tey anamu ana àtte lislaam anamu tey boo ne nañ leen nañ leen ñëw ci lislaam nga dégg ko ne non kon nu ñuy def chrétiens yi nu ñu leen di def lu ci seen yow nangulal ba pare rek nga xool nu ñu leen di def yonent bi saa salaam nekkoon na Medine ay yahud nekk fa nan la leen def ay chrétiens foon nu mu leen def waaw ñoom nuñ ñu def waaw mu ngoog gis nga ñoom nuñ ñu def di jëloon seen dimanche samedi bàyyi ñu la ak sunu aju mu ngoog kon problème bi yëpp mooy du sax ñee mais ñun ñoo am problème boo bëggoon waa attewal islam fii léegi Jean du la xeex Paul du la xeex Thérèse du la xeex Émilie du la xeex xam nga kan mooy yóg jël jaasi Mouhamad ak Abdallah ak Aboubacar ñooy yëg fii kenn du ko fi defee non non non non bu la ñu sonal quoi li ngeen bëgg a fàtte nit ñi non bàyyi leen ñu dund ah xoolal ñun dañuy gérer ah xoolal ñun dañuy noos jullit yi ñoo la koy wax jullit yi jullit yi ñoo la koy wax waaw parce que pare wuñ pour dund diine li mooy suñu wax yàlla yonent bi moo wax dëgg ne woon na yéen a ngi ñëw jamono li ngeen di njëkk a bàtte mooy li ngeen di njëkk a bàyyi mooy atte atte ngeen di sànni fële def alquran téere barkeelu téere barkeelu ku tabax këram ba pare balaa ngay toxu dañ ma wàcceel kaamil bu nit deewee ñu indi kaamil ku tiit dañ laa war a seet si audité la kaa leen wàcceel ma kaamil ci bureau bi waaw li ci gën a garaaw nag mooy ñu bàyyi waa ji ba mu dee ñu indi alquran di ko jàng waxuma baaxul de waaye alquran moo nañu li tunzira man kaana mayitan ay yan suratu yasin li tunzira pour nañu waar ci alquran man ki nga xam ne kaana nekk na hayyan yàlla waxul mayita ku dund la wax nañ ko jàngal téere bi ku dund ñun ñii la ñoo ko moom aqimu salaa wa atu zaka kan moo koy def kuy dund suñ bàyyi ba waa ji dee mi ngi nii élimaan di ko ay jullee élimaan naan ko yow xamoon nga ne yàlla nee na aqimi salaa lu mu koy jëriñ hal yan fa us salaa al yawma ñi naan ko yow xamoon nga ne yàlla dafa tere riba waxoon na laa taakulu riba adafan mu daa mu ngi ni dee te loolu mooy alquran alquran def leen bàyyi leen la yow da nga bàyyi ba waaji de nga ñëw naan ko yàlla nee na innama al ya ayuha alladina amanu innama alxamru walmaysiru wal ansa fekk moom loolu la doon def wala taakulu amwaal amwaal al yataama innama yaakuluna yi nga ñëw di ko liiral ah, luwaay yi luwaay yi li yàlla araamal nga ñëw di ko wax te loolu rek la doon def nag yéen yéen a ko àtte yéen a ko àtte yàlla nee na alxuraan pour kuy dund la kuy dund du pour kër gi nga gis seen saay waa ji mu ne am naa kaamil la kaamil bu garaaw laa yor wuru màkk moom ko mayoon bi ma aji jee mu ngi ci sama armoire bi ma teg nan dem mool na ko nga ñëw ñu génne ko ñeenti weer kaamil baa ngi ko ser kenn laal ko kaamil bi du pour armoire bi pour borom armoire bi la yenn saa nga gis kenn koo xam ne moom da koy def musluwaay ci otoom day ut kaamil teg ko nii ci kanam oto bi wala mu def ko ci ginnaaw pour oto bi bu ko dara laal kaamil bi du pour oto bi pour borom oto bi la kaamil du objet du objet bu ñuy bu ñuy meubler du meuble kaamil bi pour ñu nga xam fooy teg sa tànk la kaamil bi pour nga dund ko la pour nga mooñ ko ak sa jikko yonent bi mu génnee àdduna saxaaba yi def délégation ñëw ziare si yaay Aïcha dañu toog ne koy benn laaj lañ am yonent bi lu doon dundam lan moo doon jikkoom mu ne leen kaana xuluquhul quraan sallallahu alayhi wa sallam soo buggee xam alquran fatiha banaas ku ko dund yonent yàlla muhammad li alquran tere lépp la bàyyi li alquran digle lépp la def moo tax mu nekkoon alquran buy dox ci kaw suuf mu jël loolu mooñ ci sahaaba yi tey ci kaw suuf fan ngeen di jëlee ku mel ne aboubacar sadiq wax leen ma ko waxuma ngeen xool sénégal kese de adduna bi yëpp laa xool jël leen adduna bi ki ci gën a baax ngeen nattale kook aboubacar yenent bi nee na wallahi maa wataati l ardu baada al anbiya xayrun min aboubacar ginnaaw yonent yàlla muhammad yonent yi dem aboubacar moo ci gën moo ci gën maa wataati l ard kaw suuf kenn doxu fi ginnaaw yonent yi ñoom ibrahima ak ñoom nuux ñoom moussa isa ginnaaw ñooñu mu ne xayrun min aboubacar ku mel ne aboubacar doxatu bi kooku kan moo ko yar muhammad fan la ko yare ci quran umar Ousmane Ali fan la leen yoon yàlla Muhammad dafa rek ci alquranu karim ak jigéen ñi ñun nag alquran baa ngi ni 114 saar yi ñun ñëpp am nañ ci kaamil yi am nga wars am nga hafs am nga kenn xamul mais lu mu ñu jëriñ lan lañu alquran bi jëriñ loolu daf ko téere barkeelu waaw ak saa ma barkeelu ci waay jaajëf loolu kese loolu taxuloon mu jóg ñaareel bi ñuy bàyyi ginnaaw atte yonent bi nee na mooy julli saaniha assala tey ñun nangu nañ ci Sénégal jullit bu dul julli nangu nañ ko ñun nangu nañ jullit bu dul woor yàlla ne woor leen mu ne man duma woor damay joxe ndogu ñun ndogu lañ ñu wax nañ joxe ndogu kan moo ko wax yàlla kan moo ko wax yonent bi yàlla de moom li mu wax mooy kutiba alaykum siyam ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun yàlla loolu la wax yàlla la wax aqimi sola taxawal leen julli hafizu ala salawat respecté leen julli yi yàlla loolu la wax su keneen ñëwee nag daan ne man julli laa mais duma julli ah ay man moom duma julli ba pare def ko sax ay way duñu julli du nu woor bu nu deewee dugg àjjana daf ko ay way te yàlla mu ne julli leen woor leen ñun ñu bañ a julli ba nu woor ba pare ñu ne ñun ay julli te ngeen jàng ci alquran waa safara bi ñu duggee safara ba pare waa aljanna di leen laaj ne leen yéen waa safara maa salakakum fi saqar lan lañ tont qaalu lam naku min al musallin ñun dañoo bañoon julli ñun dañoo bañoon a julli loolu tey moo ñu dugal safara fa xalafa min baadihim xalfun adaau salaa wattabau fa sawfa yalqawna xayyan illa man taaba wa amana wa amila saalihan yenent bi ba mu demee ñu baax ñi dem ñan ñoo leen wuutu ñi lànk bañ a julli yàlla mu ne ci xëy yi laa leen di naan loo ëllëg safara laa leen jëm mbokk yi ndeke l'islam bi du lu ñuy dégg rek naan man julli laa ci diina bi laa déedéet lii lu ñuy dund la dañ koy dund aw dundin la islam manhajul haya dundin la bu julli di dund 24 heures sur 24 kenn ci ñun fii ci biir baas bi toog na laaj benn laaj ndax am na islam wax na ci benn mbir ñu seen ndax wax na ci wala waxu ci ci di ngay dundee laa wax laajal benn laaj ndax lii islam wax na ci ñu seet dàll bi sax boo koy sol l'islam wax na ban dàll ngay njëkk a sol yére bi sax wax na la ban tànk mooy njëkk a dugg tubéy ci mbubb mi wax na la ban loxo mooy njëkk boo koy simmi sax wax na la looy simmi ngay dugg ci douche bi wax nañ la looy dugg ngay génn wax nañ la looy génn nga fay toog sax wax nañ la noo fay toogee ba yaag sax soxna- soxna ci kawlal bi l'islam wax na leen nu ngeen di nekkee oto bi wax nañ la noo ci yéeg noo ciy waree lu nekk l'islam jàngale na ko amul lu mbaay ma ni mbaam yi bu ñu ŋaaxee sax wax nañ la li ngay wax xaj yi bu ñu mbëwee sax wax nañ la looy wax soo déggee ginaar sab sax wax nañ la looy wax benn sahaab benn waay benn waay ñëw na benn yahud ñëw na ci abu abu zar ne ko seen diina ji lépp la jàngale mu ne diina ji bàyyiwul dara jàngal nañu ba jàngal ñu booy dugg duus jàngal ñu ba jàng noo fay nekkee ak soo génnee nooy génnee maa farat naa fil kitaabi min shay min shay shay yàlla neen xoolal shay la wax shay shay shay mooy lan ci arab ci olof tus dara yàlla neen lépp wax naa ko ñun ñu nekk fii di làmbatu nekk ay taxankatu guddi koo xam ne nee nañ la yow bàyyi luñ la dara ndeysaan ngay làmbatu nekk gumba ah di làmbatu xamoo foo jëm te yow nee nañ la liñ la indil bàyyiwuñ la ci dara lépp a ngi nii loo soxla rek mi ngi nii da ngay dem rek loo soxla mi ngi nii question boo soxla réponse baa ngi nii ñun tey ndeysaan yal nañu yàlla yërëm yàlla daf ñu sant julli ku dul julli yéeféer nga bu yeboo mu leer seen bopp fii ci biir tànt bi góor ak jigéen mag ak ndaw bu fi ku dul julli nekkee ab yéeféer la te ku dul julli da nga nul dëkkal sax ci kër su deewee kenn waru ko sang kenn waru ko dem leen ci hukmu taariku salaa bu useymin
ñu dem ci muqaddimatul isi wa risalat ibn abi zayd al xayrawani mu nga cheikh bi nee na ñu dem ci muqaddima dinañ fa fekk atte yoo xam ne babul murtad billahi lazi la ilaha illa huwa ku ko xamoon loolu moo lay xaar di nga xam ne yii ñu nekkee ay caaxaan la man duma julli ba pare bëgg a nekk julli ku dul julli yéeféer nga yàllaa ko wax l'islam bañ a julli bokk ci l'islam julli la man aqaamaha faqad aqaama diin wa man tarakaha faqad hadama diin yonent bi nee na ku taxawal julli jullit la taxawal nga diine ku bàyyi julli yonent bi nee na màbb nga diine bu ñuy caw ci l'islam bu ñuy caw ñi nga xam ne dañuy julli sax di di di sàggane julli gi yàlla naan ñu fa waylun lil musallin alladina hum an salatihim saahun masama ku dul julli bu ñuy caw ku yàq julli ku dul julli teew fa dañ naan ngandamaa ngi nii kii lañ doon wër nag ñëwal yow kon jullit day julli baatub julli lan moo tax ñu tuddee ko jullit mooy day julli tey ñun nangu nañ dëkk kër ku dul julli nga am jabar ju dul julli man dama wax ba sonnoo non léegi comme damay bañ ku ma dégg naa noppi léeg-léeg sax nga bëgg a dem fajar jàkk nga dégg asalaatu xayru minan naw nga bëgg a jóg soxna si la nii nga tëdd bisa ngi ñëw dina yuuxu ba ñëpp ñëw mun a jël leen yóbbu jàkk ji déggu leen li ma wax de ku sa soxna tere dem jàkk bisa ngi ñëw dina yuuxu ba ñëpp ñëw mun a jël leen yóbbu jàkk ja
moom soxna si yooxu ba ñëpp waaw moom soxna si mooy yuuxu ba ñëpp ñëw mun a jël leen yóbbu jàkk ji te moo la tere woon yàlla waaw dem leen ngeen jëli woo leen woo leen diw woo leen ñoom diw dem leen ngeen jëli caabi morgue bi yóbbu leen ko jàkk ji pare naa ci ndeysaan ñooñu la yàlla di wax ci quran ma kaana lahum an yadxuluha illa xaifin xam nga ne ku ku ku cinq ponkal yenu def la ci kees di la yóbbu jàkk ja neexu la yóbboo sa bopp de di nga ci gis ñu yàlla rëbb ñoo xam ne dañuy xëdd ba pare tëddaat duñ dem jàkk fajar jamais xoolal xëdd ba pare tëddaat te weeru koor dabaatal la dabaatal formation fi mu nekk ci stage lañ nekk yu ndaw yi la doon rëcc mooy yooyu ñu lay wax ni julli fajar jàkk xam nga dala daan rëcc yenn saay am na ci ñoo xamante ne mosu ñu dem fajar jàkk léegi nag xëdd nga xanaa nag xanaa nag ay waay loo alku alku alku xëdd ba pare jàkk jaa ngi nii ndeysaan waaye am na ñoo xam ne lu mbir mi di yomb yomb yomb yomb yàlla yombulu ko ci ñoom moo tax ku yebo sant yàlla ku yàlla baaxe li yàlla santaane nga ci tartari sa bopp santal yàlla xoolal nit ñi ni ñu bare sa jàkka yi du fees ah xaw ma yéen seen jàkka yi de stade day fees del del te stade 6 heures la ñuy soxla nit ñi 7 heures stade bi 8 heures ci suba lay fees 6 heures ci ngoon lañ leen soxla stade bi 6 heures ci suba lay fees ñaata heure moo fi jaar ñëpp taxaw am na yoo xam ne ci naaj bi la ñuy taxaw simmeeku def yaramu neen di yuuxu 6 heures ci suba ba 6 heures ci ngoon wala ba minuit parce que bu mbër mi daanee ñu continuer yuuxu ya ba minuit wala fanaane ko noonu julliwuñ benn waxtu moo tax keroog bi ñu naan Sénégal weer yu feeñu fi da ngeen naan gisu leen ko parce que seetu leen ko da ngeen doon seetaan télé ngeen koo seet fii kenn xoolu ko fi ñëpp ci télé lañ nekkoon di ko seetaan da ngeen koo seetaan ñenn ñi sax dañoo julli dimis daw i la combat bi di commencé ma da ngeen koo xool xoolu leen ko nañ wax dëgg bi te li ruslu mooy weer yu feeñ na Sénégal ñu naan non dañoo bëgg ñëpp woorandoo la ilaha illallah Sénégal bu ngeen yemee ci gaz bu seer courant bu coupé sant leen yàlla chaque jour ma wax ko mani bu ñu yemee ci courant bu coupé marchandise bu seer sant nañ sant yàlla ñun lépp loo xamante ne xeet yu njëkk yi defoon nañ ko yàlla benn leen wala mu yóbbu mu wëlbati suuf si ñun def nañ ko amul lu ñu deful ci mbon fii fi mu nekk nii ban débat moo nekk ci rajo bi ban débat moo nekk ci ñaari opposition yeeg parti parti au pouvoir affaire góor jigéen te loolu du du lu ndaw parce que ci sommet bi la ñu yor réew mi bu ñu demee ba naan ñi ay góor jigéen lañ maa mos a dégg benn waay en direct ci wal fajiri mu ne Sénégal depuis Senghor ba fii nu toog ñi ko mos a jiite ñëpp ay góor jigéen lañ ak ay franc-maçon kon ñun fu ñu jëm xeet boo xam ne jullit yoo xam ne ñi leen jiite ñëpp ay franc-maçon lañ ak ay góor jigéen réew moom fu ñu jëm réew moo xam ne duñ fa def lu baax lu bon rek ay fesman ay monument ay théâtre ay yooyu rek mooy moo yi- moo yitteel ñi waa réew ma réew moo xam ne doo dégg mukk ñuy kaas l'islam تلهم أن تكون علامات الساعة يعرفون non réew moo xam ne doo fekk mukk ñuy wax mbirum diine lan la ñuy wax fo rek fan kon yii tomb yi suñ ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax pour ñu teg ci suñu bët ñu teg ci suñu tànk ñu xam ne yowmal qiyaam ñu ngi jege si ñu dëpp parce que yoon wi ñu jaar baaxul yonent bi nee na juróomeelu tomb da ngeen di fecc pas-pasu lislaam yi bi ci njëkk mooy atte ñaareel bi mooy julli réew moo xam ne dañuy tiitaroo duñ julli wala bu ñuy julli sax dañu naan yenn saa nga dégg ku ne xaaral ma këpp këppal yenn saa nga dégg bu dee benn business ko mu ne nañ dem dóor ko mu daanu mais yow ban jàkka ngay jullee ñu ne jàkka rapide ku bañ sa tension monte fa ngay dem mais jàkka jee boo ay 30 rakka la ñu ne wuu jii ñëw xaw ma lu ñu nañ dem fee ñaari rakk pourtant bu doon xaalis bi ñuy joxe la ñee di joxe 1000 francs ñee di joxe 10 000 fa fan la ñuy dem gis nga. këpp këppal nañ ko këpp këppal moo tax suñu julli yi amul njëriñ ndax jàngaloon nañ ne inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar nga gis waa ji ci biir jàkk ji programme pays mi mu ngi ci poos bi bu paree sax yenn saa yi mu wéeru ci biir jàkk ji di xool tey lan laay joué gis nga ko julli na foog ñu xoolaat suñu julli yi ndax julli yàlla nee nañu day tere def lu bon semaine bi dañ ma yónnee sama email benn image boo xam ne dafa tax normalatuma surtout nag bu ma duggee ci jàkk di julli image bi day ñëw taxaw sama kanam xam ngeen image bi lan la dañu wonee julli jot ilimaam bi dugg ci jàkk ji di julli nit ñi ñëw waa ji day jàngale ne nit ñi julleetuñu loolu la ma bëgg a wax gaa yi fi ñu taxaw ñoom ñëpp seen ruu yi génn ilimaan bi génn na këram dem di régler ji dépasse gé am na ñoo xam ne kenn mu ngi génn ci jàkka ji taxaw ci buntu jàkka ji di woote téléphone ñeneen ñi ñu ngi génn taxaw fële di waxtaan si ay business ba dara desul lu dul julli gaa ngi waaj a jeex taaya ñoom ñëpp ñu daawaat ñëw toog daal di taaya di asalaamaaleykum maanaam yaram yee nekk ci jàkka ji mais ruu yi nekkul ci jàkka ji di nga gis ku ne allahu akbar di xuloo mu ngi xuloo de mu ngi ci jàkka ji de mu ngi ne allahu akbar mais mu ngi xeex ba bañ naan asalaamaaleykum lay teewlu ne asalaamaaleykum da ngay gis ku ne allahu akbar instant yi mu ngi ci biir jàkk yi mais ruwam mu ngi sàndaga mi ngi xalaat lu muy ndogoo tey de moom bés doore laa war a dem te mi ngi jàkk yi di julli de ilimaan a ngi jari mu ngi dégg génn wàllu julli yëpp noonu na nit ñi yaram yi ñooy nekk ci jàkk yi mais ruuye xel yi day génn julli gi dara te jàngoon ngeen qad aflaha al muminuun allazina hum fi salaatihim xashiun lax dali bii ñu jàng fii ci réew bi nga xam ne ñëpp jàng rek la la li salaati nuurun azim tushriqu fi qulubi almusallin mu ne wala yanaaluhu illa alxashiun julli dafa war a am toroxlu yonent bi saa salaam bu daan julli dañuy dégg dënn bi azizun ka azizul mirjal min al buka dënn bi di xiix xiix yaay ay senee na yonent bi danaan waxtaan ak ñun mais bu julli jotee day mel ne xamatuñu foog ñu jox julli gëddëm jàng yi di mat di set di leer ruko yi di wir léegi da nga naan al yenn saa yi nga dugg jàkk allahu akbar rek bismil sa duwaawul istita ngay def subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la rek ñu ne allahu akbar ruko nga ni subhana balaa nga ne azim ñu ne sami allahu liman hamid balaa nga ne rabbana ñu ne allahu akbar soo ne subhana ñu ne allah taaya moom boo ne attahiyaatu ñu ne assalaamu aleykum ku nekk jël uppukaayam dem wuu jumaa ji daa tàng jàkk ji daa tàng daw génn dawal fële loolu musiba la te kat xoolal dañuy julli dañuy farax faraxi julli ko bari génn taxaw ci buntu jàkk ji di waxtaan kon lu ñu doon yàkkam fu ñu jëm julli lu ñuy jox temps la ñu koy jox temps ndax mooy jaamu yàlla bi gën a màgg ci jaamu yàlla yi soo ko doon misaal mooy bopp ci yaram bopp bu ñu ko dindee ci yaram lu fay nekk su ñu doon misaal bopp julli ci diine ci mooy bopp ci yaram yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam ci misaal yooyu muñ doon jox ci màndarga yi juróomeelu ponk juróom benn juróom juróomeelu ponk ci màndarga yi aaxiru zaman juróom benneel mooy istixlaalul xamr wa tasmiyatuha gayri ismiha daganal sàngara ak tudde ko yeneen tur yu ko islaam xamul woon xam ngeen sàngara dafa haram jàng ngeen ci alquran yàlla mu ne innama alxamr wal maysir wal ansaab wal azlam rijsun min amali sheytan fajtani boobu borom bi tabaraka wa taala mu ne jàng ngeen ci quran yàlla mu ne sàngara dafa haram keroog ba aaya bi wàccee sahaaba yi dañoo jël siwu yi ndaal yi bërigo yi këpp ko ci mbeddi Medina toj ndaa yi ba ulama u siira nee nañ naaj bi bi mu tàngee xet gi dafa fekk nit ñi ci biir néeg yi lépp luñ tuur ba yàlla ne fahal antum muntahun omar ne allahumma antahayna minhu yàlla ñun pare nañ ci keroog ba yàlla ne ñu- omar ne ñun pare nañ ci ñun waa sénégal lañ ne ñun ñu ngi doog a commencé yonent bi ne ijtanibul xamr mooy tandiku leen sàngara fa innaha ummul xabaais sàngara mooy ndeyu ñaawteef yi na ngeen ko mooy tandiku sàngara mooy ndey ñaawteef yi mu ne ci riwaaya beneen fa innaha miftaahu kullu shar sàngara mooy caabi lépp lu bon gis nga ku bëgg a def lu bon ci Sénégal da ngay gis xale bu góor bu nekk ci kër gi jubawul ak baayam wala jubawul ak yaayam lan lay wax dama naan tat wax paa bi raay tat laay def tey wax ko raay yàgg ngeen dégg loolu paa bi bàyyi leen maa moom tat laay def tey wax ko ngeew yow bi nga nee cocc munoo wax raay nga naan danga naan tat wax raay xaq dëgg yow bi nga ne bi nga wéree këng normal nii munoo wax dëgg nga ne dangay man di wax dëgg ku mandi fu muy waxee dëgg et puis amoo fooy looy mandi amoo koy waxal loolu dul sa baay dañ seetaat suñu bopp yàlla ne sàngara araam na ñun ñu ñëw jël ay këyit ñu fal ay nit yoo xamante ne nit ñooñu bi ñu leen falee dañoo ñëw ci xeet bi may ay nit këyit ne leen yéen am ngeen droit jaay sàngara yéen am ngeen droit jaay ko am ngeen ay kayit mu ngi nii kayit yaa ngi nii ku amul kayit dina bëtu di jaay ñu ne kii day def clandestinement dañ koy jàpp keneen ki nga xam ne moom am na droit ubbi baar xoolal danga ma tax koñ boo dem léegi xale yi dañuy naan am na benn sàngara boo xam ne ci ay mbuus lañ ko def mooy mbuusu ndox yi tuddee ko salañ salañ di ko jaay xale yi ñu koy naan démb ci waxtaan bu ma nekkoon conférence benn waaye ne ma dégg nga fan yi waa pasti valda di jéem a riposte di gaaruwaale c'est parce que dafa am beneen pasti bu fi ñëw boo xam ne dafa am drogue démb lañ ma jox information moom sàngara dañ koy jaay léegi ci ay mbuus comme ni ñuy jaay mbuusu ndox yu juróomi dërëm yi benn borom xam-xam bu ma doon waxtaanal ci biroom mu ne ma maa ko topp di ko topp di ko topp ba Rufisque lañ koy liggéeyee sangara wu.
waaw Rufisque tëngéej lañ koy defaree tëngéej tëngéej waa ji ne na maa ko topp ba ba ba tëngéej te lu rus lu mooy mu ne bi ma ci waxee dañ maa woo téléphone di ma saaga ndey nee na am na ñoo xam ne sax dañoo dem ci télé bi ay utal ut ay conférencier ñu may xas man dem ba ci télé bi di ma xas ay conférencier di défendre isin ba fu ñu jëm ñun Sénégal fu ñu jëm lu yàlla ne dafa xaraam ñu koy jaay jullit yi ñu koy naan nga gis ku woor ba ngoon di ndogoo sàngara woor ba ngoon laa wax de nit ñi naan allahumma laka sumtu wala rizq aftart zahaba zama'u wabtalatil uruq moom mu yor bu tel sàngara naan zahaba zama'u wabtalatil uruq baa xam na loolu.
di ndogoo sàngara yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ne mudminul xamr ka aabidu wasan naan katu sàngara mook jaamu katu xërum ñooyam benn lañ imam ahmad moo ko solo ci musnadam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na salaasatun ñetti nit a ngi nii qad harama allahu alayhimul janna yàlla araamal na ci ñoom aljanna duñ dugg mukk te ku gëm ne dinañ dugg yow doo dugg ñett ñi duñ dugg ajana kan mu ne mudminul xamr wa aaqun li walidayhi wa dayus wa huwa allazi yuqirru suu fi ahli wa fi riwaya allazi yarda alxubusu fi ahli yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na naankatu sàngara du dugg ajana kuy dënge ndeyam ak baayam du dugg aljanna dayus du dugg aljanna ñu ne yonent ko kuy dayus mu ne koo xam ne waa këram bu ñuy def lu bon mu ne ay xale lañ bu ñu màggee mu dañ borom kër goo xam ne waa këram bu ñuy def lu bon mu ne suñu màggee mu dañ ay xale lañ buñ màggee mu dañ non bàyyil xale yi buñ màggee mu dañ ci beneen riwaaye lan la wax waa ji moom sax dafa nangu lu bon li ñu koy def ci kër yi fa ko ko nangu dafa nangu kër gi ñu fi def bopp neen di fi xeesal di fi meesu di fi njaaloo góor ak jigéen di fi njaaloo ci biir kër gi da koo nangu boo waxee mu ne ay xale lañ dañ cee toll ndeysaan am na benn benn benn góor goo xam ne ndeysaan dafa dund France yàgg fa jullit la de mu ñëw Sénégal ñibbisi tabax kër takk soxna nekk kilifa nag léegi nag toog tëdd ci piliyaanam benn xale bu jigéen bu bon sol lu bon ñëw di seet si doomam bu góor ñëw fekk mu tëdd de xanaa sax waroon na ko rus boog waaye ñëw ak col gu bon googu ñëw nuyu góor gi ne ko diw laay seet mu ne ko dugal soxnaam ne ko eh kii ah, kii lim kii li mu sol bon na mu ne ko dacee tool bàyyi ko mu doxal ko man mii bi ma ci tollee dama ko doon doxal loolu la ko wax ma ci tollee dama ko doon doxal tey loolu ngay dégg te la nga dégg ci grand place su paa yi wala maire ñu naan cee ñun biñ ci tollee dégg paa bi ne maa mënoon fecc maa daan jël kub yi lu bon kenn du ko fàttali ko ñi jàngale tuub sarti tuub dañu ne boo ci amoon ay photo sax wala ay yére da nga koy lakk ndax dootoo ko bëgg a nettali waaye ñun loolu mooy la ne ñun tuubunu ñun dañoo munul dañoo mënatul dafa am koo xam ne dafa tuub am koo xam ne dafa mënatul mbir mee ko bàyyi moo mënatu ko gis nga tey su benn màggat bi gënoon màggat ci seen dëkk bii ngeen yóbbu ko ci salon coiffure bii ñu coiffé ko ba mu rafet capp-cappal ko rosa ko dooral ko mini dooral ko body solo ko daal capp bu génnee fii nit ñi dañ naan dafa dof ñëpp ay daw lu tax parce que dafa màgget waaye bu ko xale bu ndaw defee ñëpp jublu ko bu ko mag defee ah ñëpp daw loolu moo lay wan ne dafa am ñu tuub am ñoo xam ne tuubuñu de mbir mi dañ koo mënatul mbir mee leen bàyyi ñoom bàyyiwuñu mbir mi de mbir mee leen bàyyi am na koo xam ne dafay xëy mees bàyyi ko mees ne ko nag xoolal di nga bàyyi parce que man mii dootuma tegu ci sa bopp bi mu doog a bàyyi mees xaw kooku xam nga tuubul ki tuub mooy koo xam ne dañ ko fekk muy mu koy def ñu ne ko araam na mu daal di koy dindi ci bis bi du yegg mais fii yenn saa yi ngay nit araam na mu ne xaaral ba mu ràpp bu ràppee mu dindi ko kooku kay xam nga ne tuuboo dana leen yàlla jubal mbokk yi bokk na ci màndarga yooyu istihlaalu lmaasif walxariir walghina yonent bi nee na bokk na ci màndargay bés penc musique bu tasaaroo ñu daganal musique daganal ko daganal soie daganal njaaloo yonent yàlla muhammad alayhi salaatu wasalaam mu ne inna allaha baasani rahmatan wa hudan lil alamin baasani li amhaqa almaazif walmazamir wa amra aljahiliya rawahu ahmed yonent bi nee na yàllaa ma yónni man yonent bi ma nekk yërmande ma nekk njub pour adduna bi wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin yonent bi yërmande la pour xeet yi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yàllaa ma yónni ma nekk njub wa in tutiuhu tahtadu su ngeen ko toppee jub assurance boobu moom dong moo ko am moom dong la yàlla joxoñ baaraam ne ku bëgg a jub rek toppal Muhammad ku ko topp jub moo tax gis nga ñi ko toppoon ñëpp a jub góor ak jigéen ñëpp a jub ashaabi kan nujum kullu maqtadaytum ihtadaytum samay sahaaba dañoo mel na biddéew ci njub ku ngeen ci roy jub ndax man mi leen yar damaa jub kii moo lay won ne chia yi dañoo fen yonent bi yar sahaaba yi ñu naan ñëpp a murtad ginnaawam kon li muy tekki mooy ki leen yar mënut a yar te yàllaa leen yonent bi moo leen yar ba yàlla tagg leen laqad radiyallahu anil muminin mu war a leer suñu bopp ne yonent bi nee na yàllaa ma yónni ma nekk yërmande ma nekk njub pour adduna bi baasani yàllaa ma yónni li am xaqal maasif waaw barakallahu fiik jazakallahu xeyran su ko defee mbir la moo xam ne bàyyi ci xel dina tax jullit mën a dem yàlla nee na yonent bi bu ngeen ko toppee jub yonent bi yar saxaay bi ba ñëpp jub ba nga xam ne ñun bu yonent bi diisoon ci ñun sax bu ñu royee Aboubacar wala Omar wala Ousmane wala Ali dañuy baax ndax tashabbahu in lam takunu mislahum fa inna tashabbuh bil karimi falaaxun jéem leen toppandoo jéem a toppandoo ku baax day tax nga baax jéem a roy ku baax day tax nga baax waaye xoolal ñun nan la ñuy roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla daf ma yónni pour ma jëlee fi musique ak ay philip ak mbiru ceddo yi hadis boobu ahmad moo ko solo ci beneen hadis yonent bi nee na iyaakum maa ngi leen di mooy tandikuloo wattandikuloo wa istimaa almaazif walghina fa innahuma yunbitu nnifaaq fi lqalb kama yunbitu lma albaqla maa ngi leen di mooy tandikuloo déglu musique ak ay woy ndax ñaar yooyu day saxal naa féq ci xol comme ndox ni muy saxale ñax ndeysaan suñ ñëwee ci ngir yi danañ gis sax borom ngir yi li ñuy wax ci musique imaam ahmad biñ ko laajee mu ne laa yunbitu illa nifaaq musique du saxal lu dul naa fiq ci xol bi ñu laajee malik imaam malik imaamu daarul hijra madrasatul hijaz laa yufta wal maliku fil madine sénégal nee nañ imaam malik mooy seen sëriñ imaamu malik da loolu lañ wax ñu ne ñun ci ngirum ci ngirum malik lañ nekk loolu ngay da ngay da ngay wax ak kenn mu ne la non ñun ci ngirum malik lañ nekk sénégal kay ci ngir mi ñu nekk mooy ngir mi ngir mi ngir mi waaw ngir mi waaye ngirum Malick moom nekkuñ ci buñ nekkoon ci ngirum Malick duñ déglu musique fi mu nekk ni kuy takk soxna loo koy takkee kuy ngénte loo su soxna si di ñëw loo koy teeroo su amee doom looy teeroo doom yi boo amee gan loo koy teeroo lépp musique la sunu lépp musique la imam malik ñu fekk ko ci jàkk ji mu toog ndeysaan bu daan jàngale bàmmeelu bàmmeelu yonent koy féete nday joor su waxee ba ci yàgg mu ne kullul kalaami yuxas wa yurad illa saahibu haza al qabr waxu ku nekk danañ ci sikki sàkk bu mu des waxu kii kii lu mu wax rek noonu la ñu ne ko waa sëriñ bu mag bi loo wax ci musique mu ne laa yasmauhu indana illa al fusaq kenn du ko déglu ku bokk ci ñun lu dul kàccoor mu wax wax ji ba pare daal di xëm ñu yenu ko yóbbu ko kër ga mu naan hal yasmauhu muslim est ce que ab jullit dina ko déglu est ce que jullit dina déglu musique hal yasmauhu muslim hal yasmauhu muslim est ce que ab jullit dina déglu musique ndeysaan démb mag ñu baax ñëpp ba ñoon musique tey da ngay gis ndeysaan mag moo xam ne dafa yor kurusam au lieu mu ne fay leen danaan wàññi leen waaye wàññil yow Modou mu ne ah mu ne wàññil wàññil léeg-léeg mu ne nii ba caa nga gis tànk bi di yëngu musique drogue la musique drogue la mbokk yi musique drogue la gis nga buñ ko tegee fii ba ci yàgg bu yàggee rek li nga commencé ànd ak moom drogue la xool ngeen kuy fecc buñ ko tegalee buñ ko tegalee cassette bi lu mu fecc fecc ba salleeru wane ji ko mbaam wane ji ko njaay àll nga xam ne musique baaxul musique drogue la bu fekkoon ne suñu thème musique kese la kon ñu xam musique moo yées moo bon mais maal asaf ay tomb la ñuy diri rek di dem Ibnul Qayyim nee na musique ruqiyatu zina nee na musique mooy mocc njaaloo wax na dëgg nan na ko yàlla fay choléra yi am fii fii nu mu tudd ñàkku rab dina am choléra ah choléra yi dañuy lëndëmal ba mu lëndëm ci biir bu dee néeg la dañ koy lëndëmal kenn du fa taal sax lampe bu leer lampe bu xonq te lampe bu xonq lu muy signifier ci français danger loolu mooy fii danger moo fi nekk ñu ñëw ci benn paa ne ko dañu bëgg nga jox ñu ayda ñu fecc duñ ko la ñu fecc de xam nga lu ñu koy wax dañuy def col collet dera mooy koll yu darante góor indi kollam jigéen indi kollam ñu tegante ko mooy collet dera pa xam nañ ne bu ñu ne koll yu darante pa bi naan sama doom demul ñu ne collet dera ñu gaawal affaire bi quoi pour pa bi du comprendre xam ngeen ne benn xale bu góor du ne sa doom ji jox ma ko ma teg ko sama koll bi ci kollam paa bi ne sama doom na dem mooy koll yu darante wala du loolu moo fa am kon loolu bu dee ibnul qayim ne ruqiyatu zina day indi njaaloo loolu góor ak jigéen ñu ne nii seen koll ñoom ñaar lu muy indi loolu sax ëpp na loolu njaaloo la waxuma loolu du ko indi mais njaaloo la ci boppam ñaata la ci Sénégal ñaata soirée yooyu ñaata la du jeex ci koor gi sax di nga gis ñuy tëgg ko lee dara koor woor ba pare di tëdd koor soirée lan la ñuy def homme 1000 francs femme libre femme wax ci wax yoo xam ne ku woor du ko nettali wax yu ñaaw ci ay jullit nañ leen yeewu nañ leen yeewu mbokk yi nañ leen nekk ay jullit jullit du tur tur kese du julit loolu kese kese nga ci am qaalat il aarabu amanna lu leen yàlla wax du dëgg qul lam tu'minu gëmu leen te dañoo waxoon ne ñun gëm nañ ñu ni door a leen fi dégg ñun gëm nañ ñun gëm nañ yàlla gëmuñu ndax dañoo bañ li yàlla wax musique mbokk yi dafa xaraam day indi njaaloo bëri na ci koñ xale yu jigéen yi ñu ëmbal yépp ci place yooyu lañ leen ëmbalee musique fu mu nekk ñaar nekk fa sàngara nekk fa jigéen nekk fa ñaar yooyu ñoo koy dundal moo tax choléra boo gis dañ fay jaay sàngara jigéen du paas mosu leen gis soirée bu ñuy wax xale bu jigéen bu paas mosu ngeen ko gis parce que ñaar yi ñoo koy dundal musique foo ko fekk rek njaaloo mi ngi fa jigéen mi ngi fa sàngara ngi fa dafa haram waxaat na ci leneen moom ibnul qayyim mu ne mooy quranu shayatin ni nga amee alquran mu nekk ab téere ñi nga xam ne ay saay-saay lañ ñoom musique lañ gëm day leen saay nga dégg kenn toog tëdd ci biir saalam di déglu benn animateur wala animatrice woo ko téléphone wallahi diw mu ne ah mu ne ko cassette bi day féexal sama xol bi ma ko dégloo sama xol bi dafa féex te jàng ngeen yàlla mu ne ala bi zikrillah lan ma war a dalal xel lu war a féexal xol alquran ab julit toog naan musique mooy féexal sama xol non man bala may kii rek ñu tegal ma benn kii quoi inna lillahi wa inna ilayhi rajiun abu bakr sadiq radiallahu anhu moom nan la ko tuddee mizmaaru shaytaan mooy fili bu shaytaane yëfu shaytaane la boobu moo doon juróom-ñaareelu tomb juróom-ñetteel mooy iksaaru nisa wa kasaratu zina bayna rijaali wa nisa bokk na ci mandargay bis penc mooy jigéen ñi ñooy ëpp góor ñi njaaloo bi tamit day bari diggante góor ñi ak jigéen ñi hadisu anas ibnu malik radiallahu anhu mu ne sahaaba yi maa leen di nettali hadis boo xam ne du kenn du leen ko nettali ku dul man boo xam ne maa ko dégg ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne balaa yowmal qiyaam jot xam-xam yàlla dina ko fi jële réer mooy tasaaroo njaaloo daal di tasaaroo ñuy naan sàngara jigéen ñi daal di ëpp góor ñi li nga gis sax juróom fukki jigéen seen doole benn jigéen moo ko yor boo boolee juróom fukki jigéen doole benn jigéen la ñu am jigéen ñëpp dañuy nekk ay yambar dara lañ dul mënati waaw loo gis léegi bu njëkk ba da ngay am jabar mooy def lépp fóot mooy taxani mooy togg mooy bale mooy léegi dañ naan la ah man jabar la na fóotkat ñëw mbindaan ñëw kuy bale gis nga oustaz nee na borom kër gay root mooy taxan mooy jëndi gaz xam ne bi gis nga jigéen du def dara lu muy def xanaa di am na ci ñoo xam ne sax duñ togg mbindaan miy togg sangu solo terminé maa ngi dem te ñëw loolu rek gis nga dara lañ mënu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne njaaloo day bari xoolal tey Sénégal li ruslu ñu naan njaaloo dafa bari ba yomb ne sëru Lagos walis boo ubbi fekk ko ci nit ñi dañuy ëmbal di teg di ngénte te ngénte njaaloo yi ñoo gën a xumb sax ngénte yi dagan yi te ñu jàng ci alxuraan yàlla mu ne wala taqrabu waxul bu leen ko def de loolu la wax bu leen ko jege wala taqrabu zina bu leen jege njaaloo ndax ñaaw bi mu ñaaw bon gi mu bon ñun mu tasaaroo ci sunu dëkk ba nit ñi naan wu sëru Lagos la wëlis boo ubbi fekk ko ci mooy kër goo dem fekk ko fa ndeysaan léegi njaaloo ci Sénégal du gàcc bu njëkk ba ku ko def ci dëkk dañ lay génne dem nëbbi la ci àll yi boo ko defee ci àll yi ñu indi la ci fu sori nga nekk fa ba am doom ba kenn ñëpp fàtte ñu doog a ñëwaat mais tey dangay gis xale bi ëmb ba pare ànd ak ki ko ëmbal ñuy doxantu mu jàpp ci loxo bi ñu naan gaynam bi la àndal kii gaay suñu amee doom yaayam teggi natt nekk su ko waa ji teralul ma teral ko ñu teg ngeen di baaf di musique gars yi cotiser ñu ne dañ koy teral lan lañ koy teral dafa mooy yàlla man faala zanban yadxak daxala annaar wa huwa yabki
Allahu akbar.
man faala zanban yadxak daxala annaar wa huwa yabki ku def bàkkaar ba pare di jibile man naan maay ngand allahu akbar yonent bi nee na bëccëg a ngi ñëw di nga dugg safara di jiw wallahi il faut ñu yew faut ñu xam ne ñun ay jullit lañ indiwuñ fi suñu bopp dañu fee indi mission la ñuy dox si mission dañu yor mission mbokk yi mission la ñuy ut si ci kaw suuf léegi ñu dem jadda zamanu wa anta talab كم تقول غدا غدا أتوب غدا غدا والموت أقرب نؤيب الزمان والأيب فينا وما في سم- زمننا أيب سوانا dañuy ayibal jamono bi naan jamono bi jamono bi jamono bi dara nekku ci ñun ñi ñëpp bi ñuy judd jant bi fan la daan fenkee fii su ngoon jotee buy sow fu muy sowe asamaan bi fu mu nekkoon bi ñuy judd ci kaw suuf si fan lañ ko fekk ngelaw li moo nekk ci diggante nit ñee fi nekk jeex na lan moo fi changement ban changement la am bu nawet ñëwee mu taw bu nawet bi jeexee mu jeex fruits yi doon ñor ci seen sais- saison ñooy ñor li daan am mooy am ban changement moo fi am naan jamono bi jamono bi changé wul ñun ñii ñoo changé ñun ñii ñoo lànk bañ a jaamu yàlla bal sax ñun ñoo yàq suuf si ndax yàlla waxoon nañu wala tufsidu fil ard baada islahiha njaaloo dafa araam ab julit du nekk njaalookat ixwatal iman yonent bi nee na njaaloo dana bari ñu naan sàngara jigéen ñi bari góor ñi néew hadis boobu tirmisi moo ko solo juróom-ñeenteel juróom-ñeenteel mbokk yi ci tomb màndarga aaxiri zaman mooy intisaaru zina njaaloo bu tasaaroo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa tufna hadihi l umma hatta yaqumu rajulu ila imraa fa yaftarishuha fi tariq fa yakunu xiyaarum yowma idin man yaqulu law waaraynahuma wara hada alxaa'id wa fi riwaya yaqulu amsaluhum law i'tazaltum at-tariq allahu akbar sallallahu alayhi wa sallam nee na njaaloo dina tasaaroo ba jamono ñëw góor jàpp jigéen tëral ko ci mbedd mi nit ñu baax ñi bu ñu ñëwee xam nga lu ñuy wax ay waay ñi ca tane waaw wa yaqulu xiyaaruhum xiyaaruhum waaw ña tane ci ña tane ca nit ña ñooy ñëw naan ay waay tee nga koo dugal nii ci biir mbaar mi da ngay da ngay léegi-léegi da ngay dox ne rek jëpp bi fekk benn waaye bu teg benn xale bu jigéen ci ponu ponu moo tax am kër def ci bangu mbedd c'est dangereux kaay yi njaalookaay lañ koy def guddi bu ngeen tëddee dañuy indi xale bu jigéen bi rek tëral ko ci baax bi yow yaa ko fi tabax de ñu tëral ko ci dëkk naa ak benn ministre boo xam ne table yi muy liggéeyee dafa xëy rek jël table yëpp dugal ci biir ma ne ko lii nag mu ne démb fi laa fekk benn xale bu jigéen ñu tëral ko fi xoolal bangu ministre ci mbedd nee na ñu baax ñu ndeysaan ñett na ca xeet boobu ñooy ñëw naan ay waay law i atazaltumu tariq waaw sama waay te tey ngeen a jóg ci digg mbedd mi mbokk ndax sutura loolu tey mu ngi ni am na jigéen ak góor di njaaloo bëccëg léegi sax waxuma la bëccëg mais da ngay toog ci télé bi rek ñu dóoral la ko njaaloo bi ne tag nga toog di xool yaa ak sa njaboot nga gis góor ak jigéen futteeku di njaaloo jëf rek ngay toog di xool wala yooyu télé yooyu ñëwagul ñàkkurab seen yooyu yegg seegu fi kon yéen sant ngeen yàlla LTL 9 yegg seegu fi ah ba pare ngeen naan yegg si du ngeen ragal yàlla musiba moo fi nekk njaaloo guddeeg bëccëg def ko ci télé yi yenn saa yi sax ñu koy manipuler ci portable yi moo tax am xale bu jigéen doom bu ndaw ñu utal ko portable xale bu góor c'est dangereux bul tuf da nga naan ni mu dem image yi xale yi ndaw ñu leen koy wan loolu fan lañ ko teg njaaloo bi takar naase dëkk bi yëpp ah léegi sax dañ naan ku njaaloowul bokkoo doo seer nga xamoon nu mu demee branché woo ñan ñoo branché wu njaalookat yi dan lañ yàlla dafa sutura il faut ñu xam ne ñun ay jullit lañ mbokk yi il faut ñu delluwaat ci suñu diine xam ne diine ji lépp lu ñaaw bokk ci njaaloo bu tasaaroo ba góor jàpp jigéen bëccëg di séy ak moom bëccëg ci digg mbedd yi léegi la hawla wala dem leen ngor ci tefesu géej gi heure yi ngeen xool wala ngeen dem gore dem leen fii côté am na géej Lagrose.
dem leen ragros dem leen waaw dem leen ngeen fekk góor ak jigéen bëccëg léegi te fii ci tefesu suuf géej gi bëccëg laa wax waxuma guddi guddi moom kenn ñëwu fa dem bëccëg soo waxee ñu ne la xoolal yow yi ngay wax yi ngay wax yow yaa yow xool yéen da ngeen tardé yooyu ngeen di wax nit ñi dépassé nañ ko léegi li affaire yi amatul nëbbatu waaw ñun dañoo avancé ñun ñu ngi ñu ngi beneen monde loolu lañ lay wax ay wax ndeysaan génnoon nañ xuruj ci benn jumaa ci benn dëkk ñu dem fanaan ci jàkka ja ba bët set ñu ne nañ jëm géej gi ku ñu fa fekk daawa ko fajar de dañoo génn jàkka jubal géej gi dañoo ñëw fekk xale bu góor ak xale bu jigéen bu toog cundung ñoom ñaar ci yàq ci géej gi cundung ci suufu montagne yi ci ay xeer yoo xam ne fii doo xalaat nu fi nit yegsee xale bu góor ak xale bu jigéen bu toog sunu amir bi ñëw ne ko salaamaaleykum mu ne waaleykum salaam ni ko kii salan la sama xarit la mu ne ko yow mi toog ak moom fi est-ce que bëggoon nga ñu indi fii sa rakk bu jigéen toog ak moom fii ci heure yi kii nga toogal fi bu doon sa rakk bu jigéen la bu nga keneen indi ko fi toog ak moom est-ce que ndeyam ak baayam yëg nañ ne fii nga ko indi ne xale bu jigéen bi yow kii sa lan la yow amoo kersa amoo fulla ci sa bopp kii di la fawee ba pare sànni la uti keneen takk ko def ko jabar xam nga nag jigéen ju bon kenn du ko takk jàpp leen ñoom ñaar ndeysaan ba ñu tuur ay rongoñ ñu dem bàyyi leen foofu xamuñ ñibbi nañ xamuñ ñibbiwuñ waaye loolu la bëgg a wax rek mooy fi mu nekk nii njaaloo bi fi mu toll ci Sénégal naan sàngara seeg musique bi kenn mënu ko arrêté loolu yàlla yërëm na ndax fi mu nekk mat na mat na waaw instant bi déglu ngeen barki dem rajo journaliste yi ci koor gi ñu dugg ci restaurant yi am na ci benn dëkk boo xam ne ci dëkk yi ñuy wax Sénégal yi ñu naan yee ñoo fi gën a sell ndaw si ne man de bu dul koor maa ngi doon jaay plate 400 mais koor gi 500 laay jaay te yépp a ngi jeex te dëkk boobu nee nañ moo gën a sell ci Sénégal ñu dugg ci baar yi gars yi ne ah ñun de xamuñu sax ci koor lañ nekk affaire yaa ngi jaral waaw rajo rajo yi rajo yi dama fàtte ban rajo la affaire yi di jar nit ñi di ndékki di añ ci ci ramadan te dëkk boo xam ne nañ moo gën a sell ci Sénégal laa wax de waxuma dëkk cumbur cumbur yii de dëkk yi nga xam ne diine la ñuy tiitaroo lool foofu la reportage bi dem du ma wax turu dëkk bi xam ngeen ko mbokk yi bokk na ci mandarga yooyu encore ba tey fukkeel mooy almujahara bil fahisha mooy di def lu bon ne ko fàng ci mbedd mi ku wax nga ni mbedd mi mbeddum buur la kenn moomu ko bu ñu kenn rey bu ñu kenn damma waaye gars yi ni yokkal affaire bi ci diggu mbedd mi loolu dafa bokk ci mandarga yowmal xiyam yonente bi saa sallam nee na laa taqumu saa hatta yuzharul fus yowmal xiyam du jot lu dul mbon danañ dañ naan ko fàng ci biti léegi amatul kersa amul nëbb kuy def lu bon loolu moo tax xale jigéen ñi ñeme sol lu bon xoolal jël seen ween yi pompe ko pompe ba mu ne cub ñu xoolal ko ba mu fat nga xam ne yow bu soo xoolee rek sa gis gis ween yi jël seen awra yi génn ci biti liñ daan nëbb sax yàlla doon wax ci quran ne jigéen buy dox bu mu yëngal tànkam ndax loolu day yëngu ci kaw lañ koy teg boo waxee ñu ne xoolal yaa ko xoola xoolu la moom yaa ko xo- noo def ba gis ko tey li gën a ruslu mooy xoolal tubéy jooju jigéen ñi di jiital day feeñ ci biti su jigéen demee jigéen ñemee génne awraam di génne tey ci Sénégal benn awra dong dong dong la ñuy nëbb ci yaramu jigéen benn mooy awra xalisa bi mag bi li ci des dara nëbbatootu ween yaa ngi ci biti dënn yaa ngi ci biti jumbax baa ngi ci biti pooj yaa ngi ci biti benn rek la ñuy nëbb ci Sénégal benn benn te sax loolu ñu ngi koy génne ah am na ñu commencé génne am na ñu commencé de waaw am na ñu commencé ndax ñooñu ñoom nee nañ ñoom ñooy ñu branché wu lu bon yàlla doon na wax ci quran ne ñi nga xam ne dañoo bëgg lu bon tasaaroo ci jullit ñi ah suñu moytuwul ma mbugal leen de te dañoo bëgg rek inna allazina yuhibbuna an tashia alfahisha fi allazina amanu ñi nga xam ne dañoo bëgg rek waxul dañu ko def de dañoo bëgg lu bon tasaaroo xanaa mën na ñu dinaa leen buggal de kon ñu kon ñu ko def nag ñun ñëpp ñu nekk ay julit suñu doom yi kenn soluwul gis ngeen xale jigéen yooyu ngeen di gis ñuy sol lu bon xale yu góor yooyu ngeen di gis ñu ñuy def ñuy def check down di génn seen i slip ci biti takk seen tiri ci xottu taat yi ngeen baal ma baat bi xale jigéen yooyu wàcc góor yooyu wàcc ñu kaw asamaan génn wuñ ci biir suuf naawuñu génn ci garab yi fan lañ jóge fu ñu jóge ci biir kër yi seen papa Abdallah la tudd seen yaay Fatima ñoom ñu tuddee leen Omar kee ñu tuddee ko Aïcha ndeysaan suñ demee Sénégal ba góor sax léegi dootul takk tubéyam ñoor lu mu doon jëriñ ñoor loolu ñu naan sentir lu mu daan jëriñ te xam nga lu yées mooy li nga xam ne ñi gën a yées ci xeet yi ñooñu la ñuy def moom la wax bañ a takk tubéy sa silib di génn góor jigéen moo koy def pour loolu mandarga la ci ñoom boo nekkee góor jigéen nga def ko ku la seen xam ne kii góor jigéen la dem bu fekkee moom tamit góor jigéen la mu dem aborder la ñun tey moom la ñuy def xoolal wattu dabalaa dabalaa ba fu mu jóge góor bënn noppam def ci jaaro góor bënn noppam def ci jaaro hein te xam ngeen ne sharia lan la may góor ci takkaay jaaro yonent bi ba mu seenee waa ji takk lam dafa xëcc ci lam bi ba mu loxo bi deretal dóor ko ci suuf ci biir marché bi mu ne ko walaw mitta wa haza fi yadika ma aflahta abadan Allahu akbar.
boo dee woon ak lii doo texi mukk yonent bi dem gaa yi ne waa ji jëlal salam yonent bi dem na mu ne yonent bi du tekki xalu safara sama loxo ma koy takkaat waaw ñun nag waaw la mu or ñun nag ñun nag ay ayyuhal ahbab ñun ñun luy suñu métier luy suñu mbir nii rek la ñu war a toogee di yaakaar ku fi dee dugg àjjana diw kay bi mu dee si oto yi ni ñu bëree diw moo ñëw am nañ ci yaakaar la hawla wala quwwata nit dee na Médine yonent bi sang ko sang ko jullee ko dem ci armeel yi ñu jox ko mu dugal ko ci biir bàmmeel bi mu pare yàlla mu ne ko mu ngi safara Muhammad Muhammad moo def loolu mu pare yàlla mu ne ko mu ngi yoon di bugg a ñaan yàlla mu ne ko boo ñaanoon juróom-ñaar fukki yoon tamit kii du ma ko baal te beneen yoonee ku mel nii bu deewee laa taqum ala qabri taxawal te mukk ci bàmmeelam naan da ngay ñaan Muhammad laa wax de waxuma Aboubacar waxuma Umar waxuma Ousmane waxuma Ali Muhammad soppe yàlla bi Habibur Rahman nit moo dee Medina ñu indil ko yonente bi mu sang ko sang mu pare ndeysaan doomam ne ko yonent damaa bëgg sa manto bi ngay jiitee jumaa ñu sàng ko sama papa mu ne dem leen ngeen indi manto bi manto yonent bi ñu solal ko nit mu pare yàlla mu ne mi ngi safara ñun fii nag waxuma la manto waaye da ngay gis kuñ ci indi ba buntu bàmmeel sax nga gis tappale yi commencé ñu jël ay affaire wala ñu jàng ay saar dugal ci biir bàmmeel bi daan ne de texe na texe na kan ma leen ne texe na kan ku leen ko wax nan leen tuub xam ngeen nit lan mooy assurance am ci kaw suuf mooy jaamu yàlla boo jaamu yàlla rek am nga assurance mais Samba la suul Demba la suul Moodu mooy sa baab Ngañ mooy sa loolu amul benn njëriñ Ali Zeynil Abidin Ibnu Husayn dañ ko fekk ci keppaaru Kaaba gi muy jooy Ali laa wax de Zeynil Abidin Ibnu Husayn sëtu yonent bi sëtu yonent bi nekkul sax lu sori de Husayn ku yaayam Fatima Husayn moo am doom tudde ko papaam mu nekk Ali Ibnu Husayn Zeynil Abidin te xoolal joo yooyu ñu ko fekk dañoo fekk mu ngi julli ba fii mu ngi mel ne nefere nag fii nefere nag am ngeen nag bu demee ci àll bi ba mu wow noonu muy mel jibi noonu la mel ñaari oom yi noonu la mel cati baaraam yi noonu la mel ñu fekk ci keppaaru kaaba gi muy jooye ñu ne ko lan la mu ne dama doon jàng alxuraan léegi ba yegg ci benn aaya aaya bi dafa mel ne musuma ko gis ñu ne ko lan la mu ne fa iza nufixa fi suur fala ansaaba baynahum yawma izin wala yatasaaluun yàlla nee na bu ñu walee buft bi ba ñëpp dekki kenn du laaj koo bokkal mu ne man bu ñu laajul du ñu xam may kan te yàlla nee na du ñu laaj yowmal xiyaam ku fay xaar ñu ne ana doomu diw loolu amul foofu foofu xam nga lu fa am yowma yafiru lmaru min axi wa ummihi wa abi wa saahibatihi wa bani limaza ya rab limaza mu ne li kulli mriin li kulli mriin minhum yowma idin sha'nun yuxni ku nekk da nga am lu la doy gars yi olof yi nee nañ sikki mi bu ñuy lakkandoo ku nekk lu muy tal fay sa bos bu sikki mi ne jëppit nga yor potu ndox balaa ngay tal sikki mu keneen sa bopp ngay tal ba pare sa bopp yàlla nee na yowmal qiyaam ku fa gis dafa am problème kon bokk na ci màndarga yowmal qiyaam fukkeelu tomb bi mooy feeñal ak mbon a feeñal ko feeñal ak mbon di lekk ci bëccëgu weeru koor bëccëgu weeru koor nga gis kuy jaay ndékki bëccëgu weeru koor nga gis kuy jaay añ di jaay ndékki ci bëccëgu weeru koor nga gis ci ku ñeme yàlla koo xam ne fële lay toll bëgg a wax nit ñi wooruma eh dégg ngeen dafal ma ñeenti nena maa ngi ñëw ñeenti nen ak ñaari kilo di wan nit ñi ne wooruma di wane sang mbon loo xam ne yow da nga waroon nëbbatu am kersa dugg ci sa waxuma la sa biir néeg mais sa ginnaaw ron lal ndax xam nga li ngay def mais tey kenn ci ñun amatuloo sax yëg-yëg yëg-yëg yëg-yëg sax buy wan ne yow jullit nga léegi dafa dee amatuñu sax yëg-yëg lépp a yàqu lu bon moom ci biti rek kenn du ko nëbb lu bon ci biti soo waxee ñu ne du man doom ñëpp la ixwaan yi fukkeel ak benn mooy taxayuru zaman laa yurafu sadiq wal kadib fukkeel ak benn mooy loolu ñu doon wax nit ñi dañuy soppeeku comme ni ñuy soppee ay mbubb nit ñi dañuy soppeeku dañuy dem jamono ba kenn dootul xam ñu dëggu kenn dootul xam fenkat yi ñëpp a yem dootoo wóolu kenn wala tey dañuy dugg jàkk ñëpp ñëw de ndeysaan nga dégg ñu ne yóbbu leen dàll yi ci biir ku fi am dàll yu baax téye ko ah jàkk ji pourtant ñu ñu fi ñu fa gis ñoom ñu baax nga yaakaar ci ñoom wala lu tax ñu ne nañ nëbbu dàll yi ci biir jàkk ah kenn xamatul léegi as-saadiq wal kaasib kenn wóolootul kenn loolu dafa bokk ci mandarga yow mal xiyaam bu ñu demee ba wóolut amatu kenn wóolutu soo duggee oto yaa ngi naan nii di xool ñi nga dendal di làmbatu minute bu nekk nga ni nii waaw boo yore sàng teg ko fukki loxo da ngay dégg sax ñu ne sa loxo ndeyjoor bu mu wóolu sa loxo càmmoñ waaw fu nit ñi jëm te yonente bi waxoon ne zannu bil mu'mini xayran zannu bil mu'mini xayran saa yoo gisee ko gëm yàlla njortul ci moom lu baax gis nga loolu moo ñu indil problème da ngay dégg weer yi feeñ na mais lu- lan ban problème moo ci am ñu naan ñan ñoo ko wax te yow jàng ci sharia ñu ne benn nit bu waxee weer yi feeñ na lan moo war dëkk boobu bu dee kori ñu ne ñaari nit tey waxuma la dañ naan benn nit da ngay dégg milliards yi nit ñu naan ah ñooñu weeru seytaane lañ gis seytaane kañ laa weer kenn wóolootul kenn loolu mooy musiba bi gën a mag sunu wóoluwul kenn ñun jullit ñi wóoluntuñ sunu biir nan la ñuy jaamoo yàlla ilimaan bi ñu teg ci kanam dañ koo wóolu ginnaaw ba ñu xamee ne jàng na ñu wóolu ci moom ak ragal yàlla ne ko yaay jiite soxna si nga takk dangaa wóolu ci moom ak mbaax jëkkër jii nga am dangaa wóolu ci moom ak mbaax ñii di la liggéeyal dangaa wóolu ci moom bu ñu demee nag ba kenn wóolutul kenn kenn wóolutul kenn fu ñu jëm loolu dafa bokk ci mandarga yow mal xiyaam kenn dootul wóolu kenn fukkeel ak benn fukkeel ak ñaar an tuqillal amaana kóllëre ama dootul amati loolu ñu naan amaana yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na laa taqumu saa xatta yazharu lbuxl wa yuxawinu l amin wa yutamanu lxaain suñ demee ba àdduna di waaj a jeex nay mooy feeñ ci kaw suuf triant yi ñoom la ñuy wóolu ñi wóoroon ñu def leen ay triant gis nga loolu pour ngeen dégg ko lu yomb dégg la gis ngeen Sénégal bi ñu jàppee ay triant di leen teg ay njiit ay ministre ak ay député ak ay président ci la Sénégal yàqu ba tey amaana baat boobu yàlla di wax amaana nga xam ne yàlla da ko gaaral asamaan mu lànk mu gaaral ko suuf mu lànk ndax xam na li ci nekk inna aranna al amaana ala samawati wal ard fa abayna wa asfaqna minha wa hamalaha al insaan yàlla mu ne innahu kaana zaluman jahula yonent bi ne yowmal xiyaam du taxaw lu dul kóllëre dootul amati koo wóolu mu wor la barki démb laay dégg ci rajo bi ñu ne benn jigéen bu am ñetti jëkkër dégg ngeen ko wala dégg leen ko ah jërëjëf dégg nga ko jërëjëf pap jërëjëf benn jëkkër bi Londres beneen jëkkër bi États-Unis d'Amérique may tafsir suñu jàkk démb di ko wax benn waay ne ma non loolu sax yow li nga wax xoola da ngay gis jigéen ju am jëkkër waxtaan ak jëkkëram fii ci Sénégal dem France ut jëkkëru tubaab su àndeek tubaab bi ñëw fii jëkkër ji sénégalais bi mooy dox course yi ngir alal rek alal loolu yëpp alal moo ñu ko war alal waa ji ne ma ne maa ci teg bët ñetti jëkkër jigéen am ko ñetti jëkkër waaw mu ngi ci internet bi jërëjëf barki démb loo jàng chauffeur taxi boo xam ne dafa dawal taxi am ba ci benn kii droite génn taxaw xool xool beneen waaye génn ñoom ñaar ñu nekk ci ñaari góor ñuy sëy am benn waay am benn waay bu bu tàng bu tàngaay bi sonaloon ci balcon fekk mu ngi fi taxaw di jël air mu séen leen mu ne non ñii lu ñuy def mu wàcc fekk ñaari góor ñuy sëy ma dugg oto gëmuma ko woon ah parce que information yi dafa bari ma dugg oto chauffeur taxi bi ne ma man ak waa ji ñoo bokk garage mu ngi tudd diw wax ma turam ak santam ne ma man ak moom ñoo bokk garage wa waa ji giñ ci yàlla fekk mu ma doon yóbbu rajo Dunia ma fay def émission waa ji waat ne ma maag waa ji ñoo bokk garage ñun fu ñu jëm sëñ bi Sénégal bu ngeen yéemee ci courant buy coupé wala gaz sant leen yàlla billahi sant leen yàlla bu ngeen yéemee ci ay courant yooyu coupé gaz ak dund bu seer rek sant leen yàlla wax leen alhamdulillah ñun dama ne instant bi la hawla wala quwwata mbon gi fi mu fi mu yem ci xeet wi nee na kaj lu ne ngay dégg lu ne lu ne lu ne bu njëkk ba da nga ko daan dégg loolu loolu da nga naan non yéen mag ñi yéen a ngi ni toog am na yu ngeen daan dégg démb ñu koy wax ci rajo da nga naan moom dëggal lii te yéen a ngi ci teg ba nii boo ubbee sa fenêtre gis ko fan lañ toll ci loolu kon nanu bàyyi xel sunu bopp xam ne ñun ay jullit lañu yonent bi nee na sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci manraga yowmal qiyaam mooy lan ndinkaane kóllëre dootul amati kenn dootul wóolu kenn triant yi ñoom la nit ñi di wóolu triant yi ñi nga xam ne ay tappalekat lañ Sénégal problème lan la ñoom problème mu milliard léegi amatuñu problème million milliard rek problème mu milliard saa yoo dégg ñu ne diw dafa détourné ay milliards te duñu wax benn nit di chaque jour bu gars yi defee audit jàpp ay centaine de personnes yu triandé te duñ sàcc million milliard rek milliard rek kuddu ñu ne kuddu bi ñu ngi ko jëndee cinquante mille kuddu paaka bi ñu ngi ko jëndee cent mille basang yi ñu ngi ko jëndee deux cent mille basang garabu tàndarma ñu ne ñu ngi ko jëndee benn garab bu nekk trois millions réew mi du dem parce que ay ñiy waraate lañ ko jox ñuy war nit ñi yaakaar naa loolu jamono bi xam ngeen ci dara koo dégg mu ne ñun dañ ñoo war ndekk ñun waxuñu woon lii imaginez le président de la république bu naan su ngeen ma falee dinaa leen defalal ay robinet maafe gars yi di yuux maa da ngeen a xiif da ngeen a sonn naa ne ba da ngay ñëw ne maafe rek machine bi daal lay defal maafe nga dem lekk yekkal ma maafe loolu yéen yéen loolu yi nga mën ngeen ko maafe rek ñun ñëpp ñëpp ñu daal di def dëgg la wóor na yàlla dëgg ana maafe bi ba yowmal xiyaam du ngeen ko lekk ku bëgg maafe da ngay dem dë robinet maafe fu mu amee robinet caakiri fu mu am ah yéen woote yéen loolu gëm ngeen ko ñii da woote yi naa leen defal ay robinet yoo xam ne caakiri la dootu leen rang da ngay ñëw rek ubbi moo tax waa xabaar jalga si naan dañ leen defal ay micro yoo xam ne da ngeen di ŋaang rek wax bi dem ñoom tamit mbokk yi lii lépp waxuñu ko pour nit ñi di reetaan mais dañ ko wax pour nit ñi yeewu xam ne ci musiba lan nekk gis nga bu fekkoon ne ñi am imaan la ñuy waxal kon heure bi baas bi rango ñi tuuru na parce que ay mbon rek la ñuy wax lii ma wax yépp ba ma tàmbalee ba fii ma yem lépp ci Sénégal la xew waxuma leen Màkka wala ma leen ay France ak Amérique de Sénégal laay dund ngeen fii dund mooy xëy ngeen di xëy ñuy gont ngeen di gont ñuy gis ngeen di gis jeex na lii dafa war a tiitlu lii dafa war a ragallu ci ay jullit dafa war a tax ñëpp tuub la hawla wala quwwata illa billah foo ko nattu wees na ko ci mbon chauffeur chauffeur taxi bi dafay xool caag mu ne ma yéen xamu leen lu xew ci dëkk bi ñun ñi daw guddi ñoo ko xam mu ne ma Sénégal ñi xam li fi yàqu mooy chauffeur taxi yéen xamu leen mu ne ma xamoo xamu yéen xamu leen li fi xew yéen da ngeen di wax rek da ngeen di dégg rek di wax mu ne xamu leen li fi xew la hawla wala quwwata illa billah mu ne ma man dëkk naa koo xam ne buy jaay boppam yaayam moo koy gunge taxi bi bu gaaree yaay ji day yéeg ci kanam mu yéeg ci ginnaaw bu taxi bi demee téeméeri mètre yaay ji wàcc taxi bi waa ji ndaw si continué yaay ji ñëwaat quoi day tuur waa koñ bi lëndëm xamal ne maa ngi moom ñoo ànd bu demee fële wàcc ñëw ayna allah ayna allah omar bam ne sàmmkat bi doo ñu jox ci gàtt yi benn mu ne waa ji ne ko dama koy sàmm moom moo ko mu ne waxal borom sàmm yi mu koy seetlu ne ko waxal borom sàmm yi till yi ñoo ko fàdd mu ne omar ayna allah omar xëm ayna allah mu xëm ayna allah baat boobu lañ daan wax démb dund gi di baax fekk na jaaykatu soow bi di bëgg a njar soow mi naan doom ji sottil ci soow mi ndox naan ko ah yaay bu ñu Omar jàppee du baax de mu ne ko Omar nekk fi mu ne ko in kaana Omar laa yaraana fa rabbu Omar yaraana soow moom kenn raxu ko keroog ñun ut nañ contrôle de prix ut nañ gendarme ut nañ police ba léegi dara normalul ba léegi dara normalul te- te am nañ lépp lu tax parce que nit ñi yaruñu leen ci laa ilaha illallah nit ñi yaruñu leen ci lislaam bu ñu bëggee dëkk bi baax dañuy yar nit ñi ci diine ittaqillah haysuma kunt ndeysaan sama benn xarit dañu ànd aji màkk portable am wadd ñu aj ba pare dem ñibbi ba suñu kër ñu woote jot ay nit ñu ne portable ñun ñoo ko moom mu ne ñu daan ñuy tegtal benn place ne ñëw leen mu ngi foofu ñu ñëw ndeke foofu lépp lu réer foofu lañ koy denc portable yi sax dañ leen branché batterie bañ seen batterie wàcc pour borom bu wootee jot aj bi jeex ñu ñibbisi maa ko njëkk a ñëw moom mu des sama ginnaaw après mu ñëw wàcc aéroport Dakar Yoff dugg taxi jël portable am teg ci kanam di waxtaan ak waa ji egg si këram wàcc génne bagage yi xelam fàtte mu dugg saal bi i sama portable ñu daw xool buntu kër gi taxi bi dem na ñu woote jot boîte vocale ñaar ñi duñ benn de waaw nit ñi foog ñu yar leen ci ragal yàlla mbokk yi ñu bëggee dëkk bi baax foog ñu yar nit ñi ci ragal yàlla fukkeel ak ñett mooy isnaadul amri ila gayri ahlihi jël mbir mi jox ko ñu ko yelloowu loolu nag moo ñu sonal ñun Sénégal dañoo jël suñuy mbir ci diine ak àdduna jox ko ñu ko yelloowu nga gis diine bi ñu jël ñu am kilifa diine bu xamul dara ci sharia xamul dara ci lislaam moom daal xam nga lu tax mu ne kilifa diine inna wajadna abaana ala umma wa inna ala asaarihim la muhtadin sama papa fi nekkoon papa bi nekk nekkatu fi ñëwal toog te loolu nag wuñ ko hôpital ah hôpital su docteur bi retraité est-ce que dañuy dem ci garage mécanicien bi ne doom ji kay remplacé ko ah nanguwuñ ko foofu ci ci àdduna ci àdduna nanguwuñ ko ci diine rek lañ ko nangu diine bi léegi amatul xam-xam isnaadul amri ila gayri ahlihi ñu jël mbir mi jox ko ñu ko yelloowul ci àdduna ak ci alaxira su ma nee ci àdduna mbirum àdduna laa ci jublu mbirum politique ak yeneen ñu jël sunuy mbir jox ko ñu ko yelloowul ci wàllu diine tamit kazaalik fu dem foo dem ba ci lu gën a suufee li gën a suufee da ngay fekk julli ñi jël seen mbir jox koo xam ne xamu ci dara dara la ci xamul lenn saa yi sax nit dee ñu ne ñu xaar diw mu ñëw daan ne li xam leen daa ne kii xamul ci sariya dara daa ne kii xamul ci sariya tus waaw mais nag léegi am na am na non yéen zahir ngeen xam moom baatin la xam moom baatin la xam waxul baatin non yéen yéen yéen ci kaw ngeen di jugé il faut ngeen bàyyi xam ne yéen charia ngeen jàng am nañu jàng baatin léegi dañu bëgg a jël caaxaan teg ko ci kaw dëgg yàlla bi diine ji diine ji ku xam rek moo ko war a yore diine bi ku xam diine bi baat bi ci njëkk a wàcc lan la wax iqra yàlla mu ne faalam annahu la ilaha illallah balaa jëfe sax faalam booy booy booy jàng sax waa asar dañ naan almadarisu qabla almasajid almadarisu qabla almasajid bala ñuy tabax jàkka ji nañ tabax jàngukaay bi ba pare gars yi dugg ci jàngukaay bi génn dem ci jàkka ji waaye gars yi dañ naan almadaris qabla almasajid jàkka ji la ñuy ñëw tabax ba pare doo ko tabax jàngukaay bi seen benn maçon bu àll tere ñu ne ko jàngalal gars yi mu nekk fa naan yàq naa bu di yàq nastayin ku yàq naa bu di di yàq nastayin looy am ci julli bi yàq naa bu wala mu ne iyyaka na'budu mu ne yàq naa bu yàq nastayin yàq nastayin ku yàq naa bu di yàq nastayin sa julli du baax julli gi doo ci am dara ndax yow yaa ne yàq nga ko il faut ñuy jël sunu mbir di ko jox ñi ko yeyoo ñu am ci ful jullit ñi tey ci élection yi ñu jëm ci kanam sunu bëggoon fal ab jullit danañ ko am wala duñ ko am mais xam nga luy gàcce tey bu ci benn jullit représenté woon du am nit loolu ndeysaan Serigne Cheikh daf ci jàngale lu garaaw bi mu defee parti di xëccoog Senghor dafa toog rek benn muqaddam ñëw ne ko mba si mu ne ko ah mu ne ko dañu ñooy gañe mu ne ko lu tax nga wax loolu mu ne ko ñu baax ñi ci dëkk bi yëpp ñun la ñu àndal mu ne kon de duñ gañe mu ne lu tax mu ne ñu baax ñi dañoo tuuti kon duñ gañe nit ñi dafa jot seeni mbir seeni mbir ñu koy jox ñi ko yeyoo ci àdduna ak ci wàllu diine ci àdduna ñu seet ñu baax ñoo xam ne bu ñu faloo du ñu tabaxal ay baar ak ay stade ak ay monument ak ay dansin nag waaye dañ ñuy tabaxal dañ ñuy defal loo xam ne moom la nit ñi soxla ci wàllu diine tamit dañ ñuy indil ñoo xam ne dañuy jiital ñoo xam ne ñooy jooyal diine ji duñu dundee diine ji mais dañuy dundal diine ji waaw dañuy dundal diine ji mais duñ ko dundee isnaadul amri ila xayri ahlihi jël mbir mi jox ko ñu ko yelloowul tey Sénégal problème boobu la am ci wàllu adduna ci wàllu alaxira wax naa leen ko sànq dañoo jël mbir mi jox ko ñu ko yelloowul moo tax mbir mi du dem du dem est ce que ñiñ ko jox mënuñu ko waruñu ko yore mbir soo bëggee mu dem da nga koy jox ki ko mën yeneen bi nee na faati kulla zi xaqin ku nekk dafa am àq lu mu yor jox ko ko lim moom ah kër gi sax boo fi duggee bëgg a jël wëlbati jël li daan ne ko góor gi yaay togg ku jigéen ki liggéeyul kër gi gu day fay kër gi day jekk tas kër sax dafa am lu muy doxee gis nga oto yi ci tali bi dafa am lu ñuy doxee ne leen oto yi nañ naaw ngeen ne avion yi wàcc leen du dem te parce que du sunanu laa fil ard sunanu laa mooy oto ci suuf lay daw avion mooy naaw waaw loolu mooy sunan bi soo ko bëggee changé du dem ñun loolu lañ def jaahil du jiite jaahil du jiite alquran dafa ngaaññi jaahil yi Moussa moo njëkk ne aouzu billahi an akuna yusuf ne yàlla boo ma aarul asub ilayhim akun yonte yàlla muhammad yaa ngi ne ko fasdaq bi ma tumar wa arid mu ne kun aaliman aw mutaalliman aw mustamian aw muhibban fala takun alxaamis man huwa alxaamis aljaahil jaahil du jiite ci diine du jiite ci aduna mbokk yi fukkeel ak ñeent taaxuzu haasihi l umma ma axaza al yahud wa nasara yonent bi nee na bokk na ci màndarga yowmal xiyaam xeet yii xeetu islaam di toppandoo xeetu yahudi ak nasaraan yi yonent bokk ci xadisu abu said alxudri radiallahu anhu mu ne la tattabi'unna sunana man kaana qablakum sibran bi sibr wa ziraan bi zira xatta law daxalu xujrata dabbin tabaatumuhum qulna ya rasul allah alyahud wa nasara qala faman yonent bi nee na àdduna du jeex lu dul julli di danañ toppandoo ji yahud ak nasaraan tey loolu moo fi am toppandoo toppandoo leen ci solo toppandoo leen ci dundin toppandoo leen ci toppandoo leen ci lépp yenn saa yi xoolal li may wax ndeysaan xale yi géejawaay day gis xale bu jigéen boo xam ne dafa dóor cheveux indien monte ay xef monte ay wee monte ay ange pompe ween dóor loo zareef ay sa la tuddoon boo ko ne ay mu ne non Alexis lépp lañ changé même tur yi tur yi sax moo ci desoon léegi ku ne Aïcha nga ne mu ne la Alexis Khadija ñu ne non Dixa Fatima ñu ne S Malik ñu ne Milk Moustapha ñu ne Taf ay xës ay wëcc fuñ jëm fan lañ jëm di toppandoo yahud yi ak nasaraan yi yonent bi nee na tànk ak tànk mbagg ak mbagg mu ne bu ñu duggoon ci paxi mbëtt sax di ngeen fa dugg ndax toppandoo leen col gu bon gi fu mu jóge xoolal te tubaab dangereux dangereux boo xam ne tubaab du ñëw ne kenn solal col gu bon mais da lay indil benn film rek nga gis xale jigéen yi ci nekk góor ñëpp di sol lu bon suba xale yi yëpp toppandoo gis nga loolu moo tax tey Sénégal mënut a nekk Sénégal mun na ñu ngi ni di tiitaroo ay nit ñu baax Sénégal kay jàmm rek moo fi am fii lu bon du fi am ah fekkee lii lu bon du fi am xanaa xamu leen Irak ñi tëdd Irak ñoo gën a baax ñi tëdd Sénégal te Irak jàmm amu fa un million musulman rey nañ leen George Bush rey na fa un million musulman waaw ak ak baytul maqdis te ki tëdd Irak ki tëdd Irak moo gën a baax ñi tëdd Sénégal kan moo nekk Irak Imam Ali wala waaw kon mbir mi du ku tëdd fii tilka ummatun qad xalat laha ma kasabat yéen walakum ma kasabtum wala tusalunna amma kaanu yaamalu loolu du Qur'an الله gars yi doon tiitaroo ay maam yàlla ne ñooñu wees nañ dem nañ tilka ñu ne amu ne ummatun xeet boo xam ne xad xalat passé nañ su ma juumee ci tafsir bi ngeen borom xam-xam yaay ngeen dimbali ma tilka ñooñu ummatun xeet lañ xad xalat passé nañ tilka ummatun xad xalat du loolu lahaa maa kasabat ñooñu lañ defoon ñoo ko moom yéen wala kum maa kasabtum yéen lu ngeen def yéen a ko moom kon bul tiitaroo jëfu kële tiitarool sa jëf jëf sa jëf jëfu jàmbur du jëf jëfal sa jëf mais di tiitaroo ay kilifa kilifa yi lañ defoon ñoom dem nañ de ñoom lañ defoon seen bopp ñun sunu bopp loolu la ñu alxuraan wax gis nga wax naa sànq ne dara taxul ñu alku mooy dañoo bàyyi alxuraan moo tax xamatuñ fi ñu teg suñu tànk ku bàyyi alxuraan da ngay alku loolu moo nu alak yonent bi neen da ngeen di toppandoo di toppandoo ba toppandoo yahudi yi te xoolal même même même même kilifa diine yi ci réew mi am na ci koo xam ne lu mu wax al waylu kullu waylun liman maala ila nasara même moom sax dafa bañ nasaraan yi ñun dañoo topp nasaraan yi waaw kon ana lu ñuy tiitaru même ñoom sax bëgguñu woon nasaraan yi ñun waxuma la nasaraan laa ilaha illallah même boo fekkoon ne fii nasaraan defar daal ab sénégalais jullit defar daal da nga naan booy xoolal gis nga yii town ba la jóge town ba yi xaw ma ngaay la jóge xaw ma booy man ci laaj wala waaw ma ne même bu dee ci ay dàll doo jël dàll bi jullit bi defar dàll bi yahut bi defar ngay jël te jàngeen ci alxuraan yàlla mu ne wala yazaaluuna yuqaatiluunakum hatta yarudduukum an diinikum in istataau yaa jàngeen ci alxuraan yàlla mu ne maa yawaddu allazina kafaru min ahli alkitaabi wala almushrikiina an yunazzala alaykum min xayrin min rabbikum min xayr min xayr la yàlla wax yàlla mu ne yahud ak nasaraan tuuti ci mbaax sax bëgguñu yéen ngeen am ko min xayr la wax min xayr yéen ñi jàng arab xam ngeen baat boobu la muy tekki yàlla mu ne yahud yi ak nasaraan yi duñu deñ di leen xeex feeg yéen a ngi géej ki nekk seen diine duñ dañ di leen xeex kañ lañ leen di bàyyi mooy bu ngeen bàyyee diine ji rek ñu ne gars yi suñuy copain lañ quoi c'est mon copain waddu law tuddi hinu bëgg nañ ngeen nooyal rek ñoom ñu nooyal feeg yéen a ngi dëgëral ñoom ñuy teengal kañ lañ leen di bàyyi bu ngeen melee ni ñoom ngeen solo ni ñu bëgg dunde ni ñu bëgg di def ñoom la ñu bëgg ñu bàyyi leen yàlla mu ne yéeféer yi yahut ak nasaraan ak bokkaalekat yi bëgguñu yéen lu toll ne tarfatal ay ni ci yiw bu bàyyeekoo ci yàlla yéen ngeen am ko léegi ñun ñu jóg di leen toppandoo di leen roy ci lépp nag ci lépp di takke ñoom ni ñuy takkee léegi lañ naan takk jot na ci tàkkusaan ci jàkk ji imam maya ba pare oto yi romb la wii wii wii wii jëm revin ndaw si lu mu def sol yore weex tàll yuy direeku ku góor ki sol costume takk karawaat ñu ñëw solal bague de mariage est-ce que loolu si alxuraan ak sunna la génn ci jàkk ji jëm ravin génn ci jàkk ji jëm caserne ñii loolu ban diine moo ko ñor loolu du diine islam te ñun noonu la ñuy def ñun lépp lu ñuy def noonu la même ni ñuy ngéntee sax ngénte yahudi la ñuy ngénti ni ñuy tekkee même suul yenn saa yi nga gis ñu ne ana néew bi gars yi nag di yërundu naan nii léegi loolu pour la la loolu sunna la la hawla wala quwwata illa billah lépp laa wax dañuy roy yahud yeeg nasara lan moo fi indi lan moo fi indi anniversaire da ngay gis xale bu ndaw ñetti at ñu organiser ko or- or- anniversaire indi xale yu góor yi indi xale yu jigéen tegal leen musique yaay toog di tàcc xale yi di fecc wala wala loolu egg seegul fii ah egg si na fi waaw loolu sunna la anniversaire ban diine la fan lañ ko jëlee yonent bi moo ko wax da ngeen leen di toppandoo ci lépp nag ci lépp ñooñu ni ñuy solo ngeen di solo ndeysaan benn borom xam-xam boo xam ne tubaab la al waxtaan benn borom xam-xam boo xam ne ñu suñu ma jeexalee xissa bi ñu dem julli ñëwaat nabda min al asila haza yakfi ya cheikh borom xam-xam bi tubaab la français la mu ngi tudd Yunus ci waa tabliir la bokk daf ñu doon defal benn formation mu ne dañoo am benn cheikh bu ma jàngal ma bàyyi sol jiin bàyyi toppandoo tubaab yi takk sentir fii sol ay budi sol kap mu ne ñu jàngal ma loolu ma bàyyi ko ma commencé di jëm a toppandoo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni muy solo mu ne benn bis may dem jumaa rek bi ma sangoo ba pare mu ne ma sol yére yu weex tàll ma sol ay xuf mu ne ma amaamawu ma kaalawu comme ni yonent bi doon kaalawoo wàcce ñaari cat yi fii mu ne ma tus ngañu mu ne ma sottee ko parfum mu ne ma peñe diw sama sikkim ba mu tooy ma peñe ko mu ne ma jël sama kaan ma génn mu ne ma jaar ci mbeddi France di dem jumaa rek benn ivrogne xam ngeen ivrogne mooy ku tàmm naan sàngara ba léegi boo naanul bu naaj bi tàngee nga mànti mu ne benn ivrogne moo ma séen naan ma yaa Muhammad yaa Muhammad yaa Muhammad yaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que lu tax parce que dafa jàng ñu ne ko yonent bi ni doon solo mu ñëw di toppandoo yonent bi ñu jaawale koog yonent bi ñun ñan la ñuy toppandoo day gis ku rasta def ci bopp bi rasta ku wax mu ne booy Mike Mike quoi yeah Mike kan ba marle xoolal kii toppandoo yonent bi di cëkkal tubéyam kee di kee moom bañ ko def waaw comme ñoom ni ñu koy wax gàttal tubéyam di ko ga xoolal Michael Jackson day gàttal tubé bi d'accord wala Michael Jackson bi dee day gàttal tubé wala du gàttal ah day gis gars yi gis tubé yi Michael da jaajëf waaye dafa branché wu ñu gis kii jullit bi ñu naan ko yow seen kër daa taal te Michael Jackson bi koy def ñëpp ko ñëpp ne à la mode la ñëpp di ko di ko toppandoo fi mu nekk nii ñuy roy Michael yëpp noonu la ñuy solo ni muy solo ñiy toppandoo Muhammad di ko def nga leen di xas ak di leen di rey soo toppandoo tubaab ñu tagg la teg la ci kaw boo toppandoo yonent bi ñu suufee la yenn yi fekk nga am sikki mu ne la yow koo jëmee lii yow lii nag wala ñu tuddee la ay tur yenn kilifa yu am sikkim ci àddina bi ñu ne la Belladeen Khomeini am naa benn waay boo xam ne maa ngi moom ñoo dëkk ñoo dëkkoon saa yi ñu reyee benn jullit ci àddina bi da leen da leen woon ma oustaz mu xool gaayam lu ñu leen def tey da koy jaral mu jënd warga de ne ma kaay tey américain yi dañoo dóor sa gaay yi dama wax a wax ba sama mënuma fexe ba tourné xeluwaat ci façon waxin bu nekk nga wax ko ak moom mais mënoo ci dara mbokk yi ñu yem ci tomb bi incha allah dem julli ji ñëwaat li ci jub ci yàlla la bàyyeekoo bu amee ay njuumte maa ngi koy jéggul sama borom di leen ko jéggul asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
kon dañ jullee ba noppi ñu dellu si waat ndax trois heures lañ war a yëkkati jotaay bi incha allah li ci des bariwul waxtaankat bi sax nee na moom day may ñi nekkoon ci jotaay bi ku am lu ko yitteel lu mu doon waxtaane mu bëgg koo laaj wala leneen lu mu bëgg a laaj lu mu ci xam mu tontu ko lu mu ci xamut ñu gëstu ji ko incha allah.